السلام عليكم على Roger Dakar Mbaye Gueye du Les Arts jëlal ñu jox ko frère yi sœurs yi du ko du Les Arts jëlal ñu jox ko nak ni frère na ko sœur na ko so ak ku ñeen ndeyaan di leen bëgg dugg bi ci feegaan ñëwee quoi asalaamaaleykum ay man maa dellu soit ay moom séeréer yi ñoo xew quoi waaw séeréer ñu ñëpp say ay séeréer naafee noonu ñu ñëpp waa PNL bi ñëpp naafee la quoi mexe mexe Jamson ñoom fay moo xew de cent onze moo xew moo tax ñun ñëpp ay séeréer lañu di leen bëggee
waaw mbokk mi sama jaamu séeréer bi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax di la wax sa buur maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di la bëggee bu baax a baax amal jaam waaw fu mu nekk nii kay moom macha allah ñu ngi ci gannaaw Basiru ndax Basiru nit ku nit ku am taxawaay la nit ku am responsabilité la nit ku nit ku responsable la aussi vraiment Bassirou mooy Ousmane Ousmane mooy Bassirou donc euh, euh, c'est Pastef qui gagne en tout cas c'est ça c'est le plus important vraiment yàlla ñu yàlla may ndam daal voilà.
asalaamaaleykum waa forum rajo Allo Dakar waa man da ndeyee de caam waaw man maa wax mbay mu dugal sama doom ci Ibrahima Bodian waaw fu fépp fu Sonko dem rek day ànd ak moom vrai patriote la. waaw bëgg Ousmane Sonko ba mu jeex tàkk waaw nekk jën bu am jom waaw këf yóbbuwu ko nit ku baax la nit ku bëgg Ousmane Sonko nit ku bëgg Sénégal waaw di la wax dalal ak jàmm
dañoo nekkoon candidat yi Pastef muy cinq ou six personnes autres n'est-ce pas ñu tànn Bassirou Diomaye Faye xëy na ñooñu nekk ci biti ñoo ëppoon ay atout pour battre campagne mais moo wax la ni la lu bees parce que Pastef dafa nekk ay courant yu bokkul courant bi Birame Souleye Diop di symboliser muy courant peut-être un démocrate courant bi nga xamee ni que Guy Marius Sagna mi ngi koy symboliser bu dee moom sax bokk na Pastef wala courant bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy symboliser wala Ngagne Demba Touré mi ngi koy symboliser wala Abbas Fall mi ngi koy symboliser kon y a une confrontation de courant ou d'intérêt antagoniste au niveau de Pastef nga tànn ci benn intégr benn intégr est-ce que lan moo la garantir ni la ñeneen ñi daañu ci ànd ban day vraiment xaw ma géntam une botte secrète quoi une botte secrète affaire bu bu ngeen jàppee di nga am na botte secrète xëy na kon mu ngi bëgg a tardé ndaxte botte secrète boo ko amee ñu ne dangaa bari pexe ba toog fële ay weer yi weer mënoo faa génne so kenn mënu la faa génne kon sa botte secrète ba defe naa mi ngi bëgg a naxasaay nañu waxante dëgg rek aussi faut pas aussi que ñu xam nga gisuloo ne am na ku mën a def surprise ci élection bi. ba jàll premier tour.
non dama la ni dama la ni dama la ni élection yi kenn mënu ni diwoo koy gagné xam nga loolu kenn kenn mënu ni diwoo koy gagné élection kenn du ko gagné avance kenn du ko perte à l'avance.
mi noonu ma jëmbal jaañ doon yëg.
asalaamaaleykum alors rajo Dakar di leen zaare bari di leen nuyu Soda di leen zaar bu baax di nuyu ñëpp ñuy dugg depuis ce matin ba léegi di leen bëggee yéen ñëpp. parce que li may laajte question bu may posé gars yi ngeen yaakaar ne Sénégal dina dem dina avan bëgg nañ avancer ñoo mun a tëj université fii bu ñuy jëlee xam-xam ñu ubbi ñu tëj ubbi làmb tous les dimanches ñu def grand combat est-ce que loolu day jëm réew day tax réew avancer. lamb bi day tax réew bi avancé ou bien fu ñu tëj di jàng xam-xam foofu foofu est-ce que buñ ko tëjee xam-xam dina dina génn foofu loolu laa bëgg a laaj parce que man li mu comprendre noonu pourquoi ñu tëj université ubbi lamb yi tous les jours gars yi tegal ñu ay lamb signé signé ay contrat Modou Lo signé ay contrat boo tawit Modou Lo ak ak kii comment ça s'appelle ki ne bu gaañ Pikine bi yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mooy c'est c'est n'importe quoi loolu laa bëgg laaj est-ce que bëgg ñii bëgg nañ Sénégal avancé di leen bëggee di leen zaara yéen yëpp ay de ay jaa tout le monde merci.
salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp bàyyiwuma kenn di. fab sama loxo teg ko ci soxna Awa Diop gëj naa la dégg mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi maa ngi lay bëgg maa ngi lay bëgg bu baax a baax waaw gis naa nga nga bég ci kii bi sëriñ Touba bi së sëñ Sambay di wax sëñ Moussa Ka moo ko bind loolu sëñ Moussa Ka moo wax loolu waaw kenn mësul dégg ci àdduna wax ju mel noonu yonent bi rek lañu ma lañu ma lañu mas a wax lu yu demee noonu way way kenn mësu koo gis sëriñ Moussa Ka dafa yéeme de sëriñ Moussa Ka dafa yéeme c'est professeur Cheikh Anta Diop nga xam ne bokk nañ ñu jàq jàng ci àdduna nee na sëñ Moussa Ka kenn du moom professeur Mar Samb Ifan waa université yëpp nee nañ sëñ Moussa Ka c'est le plus grand poète du monde dañ koy jàngale fii ci université américaine yi sax Cheikh Moussa Ka kenn mësul gis ku mel ni moom sëñ Touba kay ci sëñ Moussa Ka rek ngay xame ne kenn xamul sëñ Touba amul morom kenn xam kenn mësu koo gis waykatam yooyu boo dégloo waykatam yooyu dootoo mën a déglu leneen sax kenn mësu koo gis ma ngi lay ziar bu baax waaye di bëgg ci yow sëñ Touba ko ko bëgg rek moom am moom morom maa ngi lay sant bu baax waaw góor maa ngi nuyu Pape Pape Daouda seen maa ngi gis muy waaw ku baax la moom te maa ngi gis muy teg baaraamam ci loolu ma bind ci ki kii xas Macky Sall ci Maccudo loolu loolu du wax Macky Sall waroo koo xas ci waaso kon ñi topp Ousmane Sonko ñoom dégguñu message Ousmane Sonko xanaa wala Ousmane Sonko dafa war a ñëw maa ngi nuyu bari mi ngi wax ni nous militons pour la fraternité l'éthique ak légalité xawma lan waaye fra- l'éthique l'éthique kat ci la ci la di def lu baax ak yemale ñëpp ak m- fraternité mooy nga mbokkoo ñëpp waaye bu fekkee da nga bëgg a topp Ousmane Sonko mu bëgg a soppi Sénégal nga ne te ngay indi problème waaso di indi affaire maccu dooki affaire lu kenn xamul li mu doon mais loolu ak ndof la kooku ak des la kon déggu leen message yu Ousmane Sonko wala boog Ousmane Sonko fi mu war a taxaw mooy foo xam fii beneen Sénégal la war a indi boo xam bi sé- ségrégation yooyu ak différence yooyu ak injustice yooyu ak xeebeel yooyu daf ko da ngeen ko war a dindi naka ngeen war a soppee Sénégal xaaral ma ma bëgguma woon a boole audio bi ak audio bi may waxee sëriñ bu mag bi sëñ Tuubaa kenn waru ko boole ay lo- yooyu sax xaaral ma ñëw donte la moom sax xeexoon na yu yu demee noonu xaaral ma ñëw tuuti ci loolu parce que c'est important dafa am solo parce que ñu bare bare bare bare ñi ngi wax mais ba léegi ci ngëlëmte la ñu nekk mun leen a defar Sénégal mukk fiig seen jukko yi da ngeen ko soppi fiig jukko yi soppeeku wul da ngeen di wax Ousmane Sonko rek waaye bu ñëwee itam bu ñëwee itam du ngeen ko wuyu ci fi mu leen di woo déggu leen message bi ñu bare bare bare bare bare quatre-vingt-dix pour cent dégguñu message fi Ousmane Sonko di wax ñu ngi yuuxu nag di wax Sonko Sonko Sonko mais tolluwuñu ci niveau xam moom li muy woote xamuñu ko loolu rek laa ciy tiit loolu rek moom laa ci ragal waaw dégguñu message bi parce que yoruñu jukko jukko yi defar Sénégal yoruñu tolluwaay bi yoruñu pas-pas bi maa la wax loolu maa la wax loolu du dañ mukk li may wax du dañ mukk du ko am bëti xol xam ne li lii ma wax mooy dëgg parce que nit ñi seen mentalité moo baaxul seeni jukko moo baaxul te tàmbali na muy am problème rek déjà ñi ngi ay tiraillement yu dul jeex ci biir parti bi yoo xam ni man lu wóor laa ci am lu leer a leer a leer laa am ci tiraillement yi dafay gor rek moom dafay gor soo xam ni si rek ndeysaan da nga koy yërëm sax mais jukkoy sénégalais moo ko wër kap xaw ma fu mu jëm loolu laa koy wax man foofu laay wax Ousmane Sonko xaw ma rek fu mu jëm rek yàlla rek ku mën a musal waaye sénégalais yii wóorul sax ak ak ak ak Ousmane Sonko parce que li muy woote man wóor na ma ni tolluwuñu fa man loolu daf maa wóor parce que jukko yi tolluwuñu fa giñ naa ci alxuraanul karim ni jukko yi tolluwuñu fa man du ma waxantu sama wax jalu muus la booy wàq di gis booy dawal tuuti rek lépp lu ma wax rek teg nañ ci bët lépp lu ma fi wax teg nañ ci bët doy na waar doy na waar kenn musu ko gis kenn musu ko gis kenn musu ko gis kenn musu ko gis sëriñ bu mag bi sax dañ ko boole féewale ko ak tubaab bi tubaab bi sax wax nañ ko nee nañ nit ñi dañoo bon ñoo leen féewale ak sëriñ bi ba ñu génne ko lan la ñu gën a réccu tubaab bi sax wax nañ loolu nee nañ sëriñ Touba ñi gën a bon mooy ñi ñu jaxaseeg moom ba ñu génne ko Pierre Marie Antoine Lassalit moo ko wax commandant du cercle di Bawol de 1913 à 1917 moo bind loolu laa la wax ci Sénégal yi nee na ñi gën a bon rek mooy ñi jaxaseeg moom rek ba ñu génne ko ndax kii kenn musul gis ku baaxee ni moom tubaab bi yee ko wax de te tubaab bi ko gënoon a bañ moo bind loolu nit ñi dañuy doomu aadama donc da ngay da ngay tàyyi sax ci ay waxi Sénégal da ngay ciy tàyyi sax mais da faaw ñu def loo xam ne lii rek faaw nga wax ci rek laa la wax faaw ñu comporté woo noo xam ne lii sax comportement bu vulgaire boo xam ne bii ah xalaat yu vulgaire yoo xam ne un niveau rétrograde un niveau intellectuel rétrograde rétrograde bu amul benn tolluwaay niveau yi ci boppam ignorance bi dafa bari foofu daal am réew mun la soppeeku lu dul nit ñi dañoo am benn tolluwaay moo tax blague yi nekk fii sax libéré seen bopp moo tax ñu libéré seen bopp parce que dañu am tolluwaay bi ñuy xeex ak tubaab yi fii ñoom ñëpp ñu mànkoo ko déggoo ko am ubbeeku xam li xew mais ñun xamuñu li xew de bu ko dee ñu ne yàlla nelaw na naka ngay xase Macky Sall naan maccudo la te kat activiste yi nga xam ne ñooy wax ci ci kii kat ñu di leen seetaan ñu ne en direct man kenn laa ci seetaanul kenn laa ci seetaanul parce que amuñu benn intellectuel level ñoom dañoo amul benn intellectuel level amuñu benn ubbeeku ja man duma ci seet déglu kenn laa ci dul déglu ay baaroo la lañu nit doo ko xeexale noonu Ousmane Sonko li muy xeex xam-xam moo koy xeex xam-xam bu wér ak tolluwaay moo koy xeex comme ñoom Kémi Seba ak ñoom Nathalie Yamb man ñooñu laay déglu mais man ñii ay diw ak diw ak diw yoo xam ni xamuñu li xew dof yoo xam ni bu ñu waxee rek nga xam ni ñi ay dof lañu naka ngay waxe naka ngay waxe xaw ma kaay foofu la xaw ma amul benn niveau benn niveau amu ko ay xas seeki yu kenn xamul yi mu doon doono xeex bi am na feneen foo xam fi da ngay convaincre nit ñi ci xam-xam ci xam-xam ak dal xam-xam bu wér nga wax li ngay wax ci xam-xam ñu mën laa déglu mais amuñu benn xam-xam amuñu benn cohérence di xaste Macky Sall nga naan mu ne màccudo la xoolal doomeeraam ji màccudo la jaam la yooyu war nañ ko wax ak esclavage moo tax man leen amuñu xam-xam dof lañu esclavage ni mu ravagé Afrique tubaab yi nit ñu xeebe def ñu ay esclave yow nga dikk naan président bi esclave la màccudo la waa màccudo yi ci des nag ah mbokki màccudo yi ci des nag dañ dul ay citoyen sénégalais moom laa bind noonu nga xam ne am na ci waa APR ah am na ci waa PASTEF am na ci ñu ànd ak Déthié Fall am na ci ñu ànd ak comment dirais-je keneen ak keneen di ay sénégalais ah bokk ci dëkk bi am ci ay tijaan am ci ay murit di ay sénégalais pour pour tout résumé ah ngay xas président bi naan ko màccudoo la màccudoo mais c'est pas possible mun leen a bàyyi yëfi dof yooyu ah mun leen a bàyyi yëfi dof yooyu yooyu kenn waru koo déglu yooyu kenn waru ko déglu diw màccudoo la diw màccudoo lan mooy màccudoo esclave c'est pas vrai même bu fekkente ne esclave la sax dañ leen a ëppoon doole rek ah am na màccudoo yoo xam ne ay wàll yu la ñu sax ah ay dëkk boo xam bi boo fa demee gis ñoo xam ni ba léegi ay esclave lañ leen jàppee ki ay affaire jaama ki yu ma xamul moo tax Sénégal fenn la dul dem Sénégal gii ngeen bëgg a defar fenn la dul dem parce que mentalité yi baaxul tubaab yi nañuy dóor rek tubaab yi rek ñu mën a yor tubaab yi rek man ci dara bu dul woon ak tubaab yi sax ñu torox laa la wax parce que ñun mënuñoo demal suñu bopp ay dof dofa ci ëpp laa la wax mënuñoo demal suñu bopp ay wax la de ay wax la fenn lañ dul dem moo tax dof yi naan tubaab yi nañ dem France dégage ñëpp a complexe ci làkku français ah mu munoo mucc ci làkku tubaab yi gëm tubaab yi ñëpp fi gëm tubaab ngeen naan France dégage da ngeen a mën a doxal Sénégal da ngeen a mën a doxal Sénégal mënul dem c'est pas possible nañu bàyyi nii rek bu kenn laal na français yi continuer di dóor parce que ñun loolu la ñu mérité ku ñuy toroxal ak ku ñuy dóor ak ku ñuy traîner dans la boue loolu la ñu mérité amuñu jukko yi amuñu xel mi amuñu way gi amuñu tolluwaay bi amuñu ngor gi amuñu jom ji jom ji ñëpp la ñu mën a jënd fii ak 80 pour cent man la ma- sénégalais bu nekk am na njëg laa la wax bu ñu teg xaalis nga nga nga nga nga nga ñu ñu lay siiñ di wàcce seen tubay ñu ci bari dañuy wàcce seen tubay laa la wax di la siiñ laa la wax yàq fayda boo gisee xool ko ci amuñu benn éducation boo ko xoolee ci booy yi nga xam ne fët bëtt nañ frontière bi ñu ci bari dugg États-Unis sax américains yaa ngi leen di commencé jéppi parce que comportement yi ñu jëlee Sénégal moom la ñu dugal fii ci États-Unis d'Amérique ah maa ngi nuyu kii bam si njóogu maa ngi mi ngi approuvé samay samay wax ndeysaan ku baax la ko te gore jàmbaar waaw góor nit dama caa bëgg nga dëggu man man ku dëgguwul defuma ak yow nen man ku dëgguwul defuma ak yow nen koo mën a doon bëgguma la sax xam bëgguma la sax gis nit da ngay dëggu sincère mais ñee ay reeki ñàkk fayda ci fekk ñi ngi lay toroxal ñi ngi lay rey ah sama waay ngay masla ak dëgg ak dëgg kenn du ko masla ak dëgg kenn du ko masla ak dëgg kenn du ko masla te ñun sénégalais kat mane nañ lu nekk nu nekk ñun sénégalais mane nañu ko laala nu nekk mane nañ la ko mane nañ ko tubaab bi da lay dóor toroxal la nga di ko siiñ dem di reeg moom te du la xool sax da lay jëppi toppal fële la lay wax moo tax teguñu ñu doomu aadama ay golo lañ ñu teg ay golo lañu tubaab yi teg laa la wax nawlawuñu parce que nun sommes pas sincères li nekk ci ñun du dëgg laa la wax xeet lañu boo xam bi kenn musul gis xeet bu mel ni comme sénégalais yi man musuma koo gis musuma koo gis soxor ñàkk jom ah ki lay ki lay duma moom ngay def xarit ki lay rey moom ngay reewandool dem di añandoog moom dem di ànd ak moom ci jàng ñàkk fayda man xaw ma loolu xaw ma loolu xaw ma loolu ñàkk fayda kenn musu koo gis c'est dégoûtant je suis dégoûté par ce par ce pays là ñëpp a kenn musu koo gis kenn rek musu koo gis kenn musu koo gis ni ñu mel Ousmane Sonko munu ci dara dara la ci Ousmane Sonko mënul giñ naa ci yàlla ne bu ñëwoon ñu ñu xas ko ci joolaa bi lañ koy jëkk a wax am nañu ko tàmbali woon sax affaire waaso lañ koy jëkk a xas come on man foofu lañ koy jëkk a xaar xas ko fa laa la wax ni ko joolaa bi xam nañ ni mënuloon a yor dëkk bi foofu la ñuy jëkk a wax de xas ko la ñuy def ci waaso comme ni ñu xase Macky Sall naan ko màccu doo la ñàkk fayda seeni wax rafetul seeni xalaat baaxul seeni jukko baaxul ah bu fi tubaab yi jógee ñu torox ngeen naan la ñun dañoo mën a demal suñu bopp yoruñu capacité boobu sëñ Tuubaa mi sax dañ ko bañ ba nga xam ne bañ moo bañoon moo tax mu génn ñu génne ko ndeysaan te lépp kat dañ koo jaxase rek mu ñëw Mauritanie ñu ñu jaxase ko mu dem Gabon ñu jaxase ay sénégalais di ko métital di waaye yow lu ne def nañ ko ko laala wax mu ñibb si Mauritanie ñu di ko métital mu ñibb si njaareem ñu di ko espionné di ko métital ba léegi am nañu ko bañ laala wax te deful dara góor googu ñàkk fayda ñii dañuy doomu aadama
waaw salaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp seen uh, grand Issa Diarra Amakho Dia Soda maa ngi lay nuyu di la siyaar seen di siyaar bari bari info bari maa ngi lay siyaar seen uh, ci kaw Maodo Bathily le grand patriote maa ngi lay nuyu di la siyaar Loukou Loukou le grand malade de Paris Loukou bàyyil plan B bi Loukou Loukou yow day seetaan rek comme forum civil nga nekk kay pourquoi ngay insister sur le plan B de Pastef Loukou Loukou Loukou forum civil Loukou ah Loukou yow dafa mel ni da nga am candidat de di ko nëbb quoi mais forum civil moom euh, bon yéen ay neutre ah, mais yow chaque jour rek nga tudd plan B bi ah Loukou yow waxal foo bokk waay ah bu dee forum civil nga bokk kay comme ça ñu xam mais bu fekkee da nga am parti it bon ñu nangul la ko rek mais li ngay tudd plan plan B bi bari na de benn ins cat ba cat waaw di siyaar kallaa seen ci kaw euh, waaw Ibrahima Boña ñu ngi lay dalal ak jàmm di seen euh, tata Aïda les patriotes laa seen ci kaw bari bari an sa copain Maodo Mandela maa ngi koy nuyu moom it di ko siyaar bu wër jibi si jibi maa ngi lay nuyu di la siyaar bu wër tonton Thiam maa ngi lay nuyu di la siyaar mais tonton Thiam dama am benn question quoi ci li ngay développé nii quoi. waaw tonton Thiam maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm di kontaan di déglu say say audio yi yow moom vraiment da ngay ñaax askan bi rek say audio yi day gën a motiver daal nit ñi ñi nga xam ne bon parce que yaa ngi développé lu am solo ci wàllum waaso te man je pense que ñun euh, patriotes yi daanaka euh, toujours rek même euh, le cas Amadou Ba activiste yi bu ñuy wax ñun bëgguñu woon di dugg ci dé- détail yooyu mais bon am na ñoo xam ne dañuy yor seen téléphone di wax loolu c'est c'est normal ay activistes lañ ku ci nekk rek da ngay jëlee la nga xam ne moom moo am solo mais buy wax nit buy wax wàllum waasoo fii ñu toll nii ak suñu candidat fi mu jugee ah ba pare ak li nga xam ne moom parcours am boobu nga xam ne dafa identifié wu ci Sénégal gi yëpp kon nag ñun on n'a pas le droit que ñuy wax ci wàllum waasoo ñun loolu amuñ ci droit muy képp ku munti nekk waaw ñun amuñu droit wax ci wàllum waasoo man boog je préfère man boog man damay préfère ki nga xam ne dañuy naan kii diw la mais kooku dëggu na ba pare ñu ne kat bon réew mi xeet bi accepté wuñ ko wala lii mais tey gis nga xeet boobu noonu bu fekkee man mën na ma soppali sama réew man damay jël man xam nga la laa bañ ki nga xam ne ñu ne kii mooy le pur sénégalais ñu ne kii moom moo am deretu sénégalais à 100 pour cent ba pare ñëw di wax askan bi man loolu laa bëggul mais man wàllum waasoo moom gën a ci am loolu moom je pense que na sa xel dal ñii peut-être que ñi sori Ousmane Sonko ñoo ciy débat mais ñi nga xam ne ñu ngi topp projet bi kon nag ñooñu moom bon bu fekkee ne am na ñu ci luñ kii sax Ousmane Sonko am na lu bëri loo xam ne soppi na ko ci wàllum waasoo parce que mooy le vrai type de sénégalais boo xam ne fépp la bokk kooku daanaka débat boobu daanaka luy yàgg moom yàgg na ciy insister. ci beneen cas bi li ngay wax ci wàllum euh, li nga wax yëpp li nga développé yëpp am na solo grand ci am mais boo xoolee ba ci biir comme ñun li nga xam ne ñu naan comme ñoom tubaab bi moom moo ñu moom moo ñu moom tubaab bi moo ñu mën a diriger wala tubaab bi euh, bu ñu bàyyee ñun dañuy yàqoo ak affaire yooyu yëpp mais grand ci am yaakaaroo ne manque de patriotisme boobu est-ce que du loolu jógewul ci sunu à base parce que problème bi nga wax grand ci am dafa dafa dafa dafa dafa rëy mais loolu am na nag loo xam ne li ñu naan fa fa fa fa fa mbir mi tàmbalee mooy wàllum éducation wàllum éducation est-ce que sunu éducation bi ñuy jox ba nit ñi ñun ñu màgg mel ni ñu mel wàllum ger yombuñu comme sunu dëkk yi fii ñu toll da ngay xool yenn dëkk yi comme ay Malek affaire yooyu noonu fi ñuy toll di fippu ñun ñu ngi naan sunu magistrat yi fii dañuy ger kii dañuy lii kii day bañ cinq personnes nangu affaire ñun problème yooyu yëpp gën a ci am est-ce que du problème éducation de base bi ñu am ah li ñuy naan ku ci nekk rek day fexe kële xeexi bu xeexee am ndam pour ñun ñëpp au lieu que ñëpp xeexi li ñuy naan njariñ loo fekkee am na yu bëri yoo xam ne grand ci am peut-être que foofu laa bëgg bu fekkee ne am nga jot nga xool bu baax a baax a baax fii fii fi ñu xool bu baax fi problème bi nekk quoi parce que xam naa ne am nga ci xam-xam te it bu fekkee ba ñuy nekk xale ñun éducation bi ñuy yaree ku ci nekk rek le le fait que man dama yaakaar ne yu bëri problème bi fu mu nekk mooy sunu yaay yi doomu baay yi kii bu amee rek toujours da ngay xool yow looy defal sa yaay fii génne sa yaay ci kër famille ak coow leeg affaire yooyu yooyu yëpp ku ci nekk day nekk concurrence ñun dañoo yar ci concurrence ñun yaruñu ci booloo grand cam loolu tamit bon facteur kii la élément bi am solo la maa ngi lay nuyu di la jaar bëgg naa nag sa sa sa abi si loolu nga xam ne loolu la mooy fi problème lii ngay wax nii fa mu jugee fa mu jugee grand cam laa bëgg a xam réellement parce que ñun nouvelle génération bi ñun dañoo soxla it xam yu bëri la nga xam ne moo baaxul ci éducation bi ngir ëllëg tamit génération bii ñëw bu fekkee dañ leen di yar ci njëriñ loo fekkee bu fekkee dañ leen di yar ci loo xam ne ni moos li ñëpp bokk kenn na ko du ŋaaj kon du ñu mus a soppi du ñu mus a avancé maa ngi lay nuyu di la char grand Issa maa ngi lay char waaw Daouda na nga def maa ngi lay ziar bu baax di la bëgg yam mbégte toujours rek di wa- bokk ak yow waxtaan macha allah xale bu yaru nga bu am dal macha allah amoo morom maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di gis sax na sax sista Aida Thiam jotuma nuyoo sax day def maa ngi koy ziar day def bu may amee lu ma lu may faral di développé yenn saa yi damay ñëw rek attaqué sujet bi du ànd ak du mën a am ànd ak jot geeg yooyu di nuyoo waaye maa ngi nuyu ñëpp ba tax na li nga wax ni lu am importance la li nga li nga li nga souligner ni jàngoro ji dañ ko war a tudd ñun sénégalais ñemewuñoo tudd suñu jàngoro koo tudd jàngoro mu mer te jàngoro ji benn la ñëpp a ko xam fii jàngoro jooju dañul dara du baax ci société boobu dara du baax de waaw coow li nag mën naa bari waaye bu pënd bi wuree rek yëf yi kàkk lay def taxaw bu pënd bi dalee pënd bu wuri mooy bu pënd bi pënd bi dem ba càgg mu dal ñu xàmmee mbaam mi soox ak mbaam murul soox bu njaab yàggee rek nga war feeñ wolof nee na bu njaab yàggee nga war feeñ bu njaab yàggee bu dox bi yàggee tuuti nga gis ci jur gi bëy yuy tappale ak bëy yuy soox ak bëy yuy feebar ak yu ma xamul yi mu doon ma maa la wax loolu bu dee coggalu mbaam noonu bu dee coggalu nag noonu ñun ñii suñu jàngoro xam nañu ko fii mu nekk nii boo gisee man la mënuñoo dem jukko yi ci boppam moo baaxul gisoo boobu ba léegi Sénégal dara doxul alxuraan moo ne seen mbir du soppeeku lu dul li nekk ci yéen da ngeen ko soppi mooy jukko yi te jukko yi baaxul te it loolu nga wax ci kër yi la jóge wujje yi nekk ci kër yi comportement nit ñi ñëpp ci li nekk ci kër yi la wujje yi nekk ci kër yi mooy feeñ ci biir ci biti nii fii mu nekk nii waaw soxor affaire defante yu sew yeeg coxor geeg wujje yeeg bañante beeg loolu yëpp ci kër yi la nekk di dafa nekk ci kër yi moom la nit ñiy dund comportement yooyu moom la nit ñiy dund moom la nit ñiy dund de moo tax ça c'est le danger de la polygamie aussi les inconvénients de la polygamie affaire wujje yi mi ngi toj Sénégal toj na ko yàq na ci lu bare bare bare bare bare bare moo waral jikko yi nag moo tax réew mi demul meetar depuis indépendance ba léegi xanaa yéen xale yi ngeen soppi ko te loolu jafe na de jafe na de xanaa ngeen soppi ko te loolu jafe na audace su soppi ko tam amuñu honnêteté boobu loolu mooy wax bi xam nga nit mën nga am jàngoro boo amee honnêteté sax dindi ko mais ñëpp patt la ñuy def de ñëpp a ngi ne mboq ne patt ci seen place di seetaan te jéemuñu koo dindi bu seen jukko yi ñëw sax duñu ko tey bu jukko ji di ñëw duñu ko tey waay jukko ak boroom danga koy wax ci xaar ma ci buntu kër gi boo yàggee ci biir kër gi rek mu fekk si la waaw buñ koy def sax duñ ko tey soxorante bi moo nekk ci politique bi ñuy bañante di reyante di wujje góor ñi sax a gën a raw jigéen ñi ci wujje góor ñi sax ñoo raw jigéen ñi fii mu nekk ci wujje laa la wax ba pare jigéen ñi sax a tane jigéen ñi gën a honnête même looy dénkaane sax bu ko bu ci jigéen ñi duggee mu dox Sénégal jigéen ñi sax ñoo fay liggéey dëgg-dëgg jigéen ñi ñoo yor liggéey bi góor ñi ni ñu mel musiba la góor ñi moom ni ñu mel musiba la laa la wax moo tax lépp taxaw na fii mu nekk ni lépp taxaw na lépp taxaw na lépp taxaw na kenn mësu koo gis kenn kenn dafa ñaaw sax ni nga xam ne moom la Sénégal mel posé nga question bu pertinente te Ousmane Sonko keneen a ci yem fii jukko yi dañul réew mi du baax gisoo Sonko ni mu déparé woon xoolal galgal yi ñu ko def xeex yi ñu ko def xas Sonko tàmbale woon nañ ko xas tam encore affaire xas te yooyu bi muy door a ñëw am na ñu doon wax joolaa du ñu yor dégg nga ko fi ba tàyyi affaire waaso lañ doon def. waaye yéen naka ngeen bëgg a nekk militant ak moom ba pare ngir di déglu sax ay ñoo xam ni dañu dañu dañu dañu dañu indi affaire affaire waaso di indi ay di xas Macky Sall ci affaire maccudo gaañi di tàccu di ko partagé loolu naka ngeen ko mën a defe loolu naka ngeen ko mën a comprendre laaj naa la loolu rek yow ñu ngi xas Ousmane Sonko ah def ségrégation ci moom gis ngeen ko ba tàyyi ñu ne joolaa la loolu lañ njëkk a wax moom mu ne lu tax lu tax mu ne man ci Sénégal laa bokk di wane nu mu bokkee ci Sénégal parce que dañ koo xas ci waaso ni joolaa duñu yor wax nañ ko man dégg naa ko fii dégg naa ko dégg ngeen ko xam ngeen li ma leen wax dañoo honnêtul ñun dañoo honnêtul ñun dañoo honnêtul on veut on peut pas vouloir une chose et son contraire dañoo honnêtul man li ma wax du dañ samay wax du neex nag parce que dëgg laay wax maam dëgg laay wax goo xam ne gi day wax xat te ku ko dégg xam ne dëgg la te it man samay wax kenn mënu koo weddi day naqari nag parce que doo ko weddi man samay wax dama koy teg ba noppi doo am leneen loo ko wecceel di ko di ko fa dindi déedéet ay wax bala moo neex nga man koo dindi débat bala moo neex waa ji wax loo xam li yow man ku ko teggi man lii may wax xam ngeen ni moo am moo am kon nag yow naka ngay xeexe nangam ñuy xeex sa waay ah nga di militer ci Ousmane Sonko parce que dañ ko jëkkoon a xeeb ah muy indi ay firnde wane ne ci Sénégal la bokk ni am na ay mbokk waalo am na ay mbokk kajoor am na ay mbokk ci Mouride am na ay mbokk ci Tidiane parce que dañ ko xeeboon daal ni waa Casamance la parce que waa Casamance dañ leen a xeeb affaire xeebeel moo nekk ci Sénégal baaxul jukko yooyu ngeen war a jëkk a dindi moo tax waa ji di activiste ba noppi du- di wax waxi dof naan màccudoo la buñ koy wax sax duñ ko tey dégg naa ko ci Ousmane Tunkara moom it xastekat la affaire waaso lay wax ak yooyu te te gënul kenn gënul kenn yooyu moo mën a ñàkk boo gënul kenn ah gënoo set kenn du ci ndey ci bàyyi mais xaste yi dafa mën a ñàkk xaste pour lan ak fii àdduna bi toll fii àdduna bi toll nga naan diw màccudoo la ah te yow yaa ngi bëgg a xeex changer régime mu Macky Sall régime bi ñun moo ñu intéressé ñu changer ko ni Sénégal di doxe yow ngay xas waa ji ci waaso xoolal leen ma loolu xoolal leen ma niveau boobu xoolal niveau boobu loolu am réew la ñii ay nit lañu moo tax ma ne bàyyi leen tubaab yi yor ñu ma ñëw ci beneen audio euh, ci yow laay tontu ba léegi waaw bu ko defee nga ne nga ne Macky Sall màccudoo la ma màccudoo la màccudoo la après màccudoo ma ne màccudoo lu ci yor lu ci nekk kon kay bu ñu tubaab yi ne ay golo ngeen ñun duñ ko duñu waruñoo wax moo tax ñu jàppe ñu ay golo tam tubaab yi nawlawuñ ñu libanais yi nawlawuñ ñu chinois yi nawlawuñ ñu ay golo lañ ñu teg ñun ay golo lañ ñu teg parce que ñun dañoo def jëfi golo la ñuy defante suñu biir yëfi golo rek la ñuy defante ci suñu biir dañuy iñaanante di soxorante di reyante ci suñu biir moo tax tam benn nationalité nawlawuñu ku ñu bëgg a jariñoo doo jaxasoo ak ñun man li ma wax du dañ mukk libanais yi jaxasoo wuñu ak ñun parce que ñun ci suñu bopp boo jaxasoo ak ñun doo ñu ma doo mën a am njariñ sax ci ñun moo tax dañ ñoo dànd def ñu comme ay esclave ñun ñi la ñu def comme ay màccudoo baaxul suñu xalaat baaxul suñuy jukko baaxul li ma wax du dañ baaxul du du du du affaire boo xam bi buy jëmale am réew kanam la Ousmane Sonko ñi ànd ak moom lool mentalité yi moo des fi Ousmane Sonko bëgg a yóbbu Sénégal damay dem ba ci yàgg sax ma ne moom euh, euh, politique am dafa teel ci ñun dafa teel te c'est la vérité ñun pare wuñu pour ànd ak Ousmane Sonko fi muy woote pare wuñu amuñu niveau bi amuñu melokaan wi amuñu jukko ji xam nga am réew bala nga koo soppi am melokaan wi am jukko ji am niveau bi am tolluwaay bi ñun amuñu jukko ji amuñu melokaan wi amuñu tolluwaay bi amuñu intelligence bi lii mooy problème mu Ousmane Sonko lii mooy problème mu Ousmane Sonko te indiwu leen ko ci waxtaan wi parce que nous ne sommes pas honnêtes ñemewuñ koo indi ci biir waxtaan wi ah kuy dem war nga xam ba xam pare nga wala pare wo mais ñemewuñu adressé da sax ni cette question est-ce qu'on doit se qu'on doit se poser est-ce que ñun pare nañu kan moo fi mas a poser question boobu fii ci fii ci groupe bi kan moo ko fi mas a wax kan moo fi mas a wax lii may wax kenn musu ko fee wax musuma koo dégg te loolu mooy question primordiale waaw ndax ñun am nañ tolluwaay bi ndax ñun pare nañu ndax ñun am nañ jukko ji ndax ñun am nañ way gi ndax ñun am nañ pas-pas bi koo gis nag nee na Pastef la bokk koo gis mu ne Pastef waaye ndax am ngeen pas-pas bi ndax fas ngeen ko ba noppi bari na ay Pastef de waaye ndax fas ngeen ba noppi munoo am Pastef te fasoo ba noppi est-ce que fas ngeen ba noppi loolu laay laajte est-ce que yéen fas ngeen kiy fas da ngay xam li ngay fas da ngay am tolluwaayu ci tolluwaayu mën a fas tolluwaayu tànn li ngay fas tolluwaayu xam li ngay fas est-ce que ñun mas ngeen a poser question boobu ñëpp a nga naan Pastef Pastef mais parewu leen giñ naa ci alxuraan ni parewu leen billahi wal kitaab boo ne billahi rek dog na boo ne billahi dog na Sénégal parewul pour ànd ak Ousmane Sonko parce que amaguñu niveau bi loolu mooy problème bi laa la wax te amuñu honnêteté adressé ko jéem a indi jéem a faj suñu bopp dañuy faju ba noppi mooy li alxuraan wax seen mbir du soppeeku lu dul da ngeen a soppi seen jukko yi alxuraan a wax loolu man waxuma la waxuma ko de alxuraan moo wax lii may wax nii te ñun parewuñu yéen wóor na leen ni parewu leen ay soxorante ay iñaanante ay mero ay mero foo nekk rek man nga faa gis man ngaa gis man ngaa gis li may wax fu ngeen daje mu yàqu jataay bu mu am ñuy soxorante di mero di iñaanante dara doxul Sénégal rek mooy fépp nag groupe yeeg jataay yeeg plateau de télévision yeeg quartier yeeg lépp mooy Sénégal foo dem rek gis fay sénégalais iñaanante fay mujj lépp dañ ko yàq rek sax ci iñaanante lépp day mujj yàqu ci iñaanante ak soxorante ak ay mesquinerie ak ay kuuba ak ay parparloo ak ay mbootaay ak ay xaritoo giñ naa ci alxuraan ne mun la dem Sénégal mun la dem parce que jukko yi baaxul mooy li Cheikh Tidiane si almaxtoom doon wax bu leen natt seen tànk mukk ci réew mi dafay dellu ginnaaw baaxul Cheikh Tidiane si almaxtoom wax na ko natt leen seen tànk ci bitim réew xanaa bu ngeen ko bëggee soppi yéen nañu raxas génération bi génération bi moo baaxul dañ koy raxas ba mu set comme li Chine defoon indi ñeneen préparer leen suñu xel yi baaxul suñu jukko yi baaxul ñun ñii baaxuñu pour Ousmane Sonko baaxul mun la dem te di nga ni waxoon naa la ko àddunaa ngi ci kanam xale bu ndaw nga del xool li ma leen di wax di nga ni waxoon naa la ko ma fekke ak ma ñàkk a fekke di nga ni waxoon naa ko tàmbali na sax tàmbali na di man li may wax tàmbali na tàmbali na maa la wax loolu tàmbali na parce que jukko yi baaxul jukko yi ci boppam ñoo baaxul nit ñi dañoo sew jukko yi baaxul dañoo iñaan baaxuñu jukko yi ci boppam moo baaxul moo tax may wax naan tubaab yi nañ ñëw bi fi tubaab yi nekkee sax la Sénégal tane woon yàlla xam na ne bi fekkewu ma tubaab yi de mais bi mu fi nekkee sax la tane woon laa la wax ni tubaab yi sax am nañ lu ñuy seet mais ñun seetante wuñu dara tubaab yi duñu liggéeyante duñu defante sànnante ay kort mais ñun dañuy soxorante ba pare boole ci ay kort di yoole di rey nit ñi di yóbbu liir yi di rey di yoole te politiciens yi kat a koy def ñiy bëgg a soppi Sénégal ah yéen a pare pare non c'est impossible c'est foutu c'est foutu giñ naa ci yàlla ni c'est foutu munul nekk Ousmane Sonko nag ñëpp a ngi wax Sonko Sonko namoo naa la namu leen kenn namu leen kenn li ngeen di wax du dëgg mun la def ak yéen il a mal choisi il est dans dans un mauvais terrain peuple bi mu àndal xamuñu li muy wax moom ndeysaan yërëm naa ko dañ koy wor te tàmbale na wor nañ ko xamuñu li muy wax xamuñu li muy wax mukk xamuñu li muy wax xamuñu li Ousmane Sonko di wax te yéen indiwu leen leewlu ci débat bi ndax xam ngeen li muy wax ndax pare ngeen ci li muy wax ndax am ngeen tolluwaay bi ndax am ngeen jukko ji da ngeen koy yan da koy ko ko fi yor kan moo fi yor jukko jooju ay wax kat rek laa fi gis nga naan lan maa ngi lay ziar c'est regrettable ndeysaan ku mel ni yow day moom ndeysaan am naa yaakaar ci ku mel ni yow.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu ku leen di leen ziyaara ku nekk turam ak santam di lonk El Hadj Niass El Hadj Niass laa taxibul am waata Sidi Lamine Niass nekkatu fi faatu na Sidi Lamine Niass nekkatu fi faatu na te bu dul dara sa mbokk la Sidi nga njëkk a xam Macky Sall fi Sidi yóbbu turu Niassène Macky Sall du fi mas a yóbbu turu Niassène Sidi turam du mas a fay ci Sénégal pouvoiru Macky Sall dafay jeex d'entraîner Macky Sall turam du mas a fay ndax Sénégal ñoo ko def li mu doon waaye Sidi ginnaaw yàlla li mu doon moo ko def boppam ak ay waay juróom yi ko yar jàngal ko tey ñu bari nekk nañ ay journaliste ndax Sidi Lamine Niass ñu bari bind nañ ngir Sidi Lamine Niass tey ñu bari xëy nañ am liggéey ngir Sidi Lamine Niass booba ana Macky Sall Sidi dafa xuus te ku nekk gisoon ne télé bi bi muy avant Sidi di nelaw ni ay journaliste am doon demee télé bi di ndóol ba ñëpp di ci teg seen gët nga taxaw ne Sidi Macky recevoir na ko def na lii def na laa te sax nit bu faaroo sax ah ci diine ji nga bokk am na lu ñu ci wax koo xam ne mënatul la défendre boppam nekkatu fi di sa mbokk di kilifa am lu bari lu mu liggéey ci réew mi démb jaraaf moo ngi wax bay tudd Macky Sall nga ne li tax jaraaf wax lii du teggin muy wax ku mel ne Macky Sall lii Sidi moom ak Macky moo ëpp njariñ Macky moo gën Macky mu ëpp diine Macky te pourtant tey lii ngay wax fii ci moom moo gën a ñaaw téeméeri junni yoon li kii di wax ci kee man hélas ko mu fu la Macky dugal mais nag sant yàlla ba Sénégal yëpp melu ni yow minorité ñuy xalaat comme yow ni fi nga teg Macky Sall waaye bu fekkoon ne Sénégal yëpp comme yow mii la ñuy xalaate ak fi nga teg Macky la ñu teg Macky bu yaboo ñun ñu nekk ci biti yëpp ñu indi suñuy soxna ak suñuy njaboot te des ci réew yi ñu nekk te xam ne réew ma moom day dëkkee am kumba am ndey ak kumba amul ndey ku ne gis na ne walf sonn gi mu sonnoon bi fa Sidi di nekk tey jii walf dem ba nekk kër goo xam ne bu doon njaboot la famille la mën na ne ku bëgg soxna su baax demal foofu nga uti ka fa ndax am na ñu fa nekk ñu mel ne Moustapha Diop di suñu fierté ñun waa Louga waa Njàmbur liggéey fa lu am solo ba yëkkatiwaat télé bi ba tey walf nekk télé ndëmb maa ngi ñëwaat ci ay minutes di nuyu tonto Bamba yow laa fekk ci bunti bi ah xam naa xaw ma sax tey leen ma. maa ngi ñëwaat ci ay minutes xam naa tonto Bamba yow laa fekk ci bunti bi
xamul luy waxtaan bi tey ak soxna Awa Isa Jara bëgg naa ñëw ziar na
salaamaaleykum maaleykum salaam man la de man la Babacar Endo booy Endo booy séréer Bakar wolof Bakar bawol bawol Bakar séréer xanaa waxee Bakar séréer nag sama xel na laal grand càmm xëy di ñëw ci ak baasom grand càmm siyaar naa la Pape Daouda Sène Maodo Mandela day mel ni ma tëddee ci guddi gi dégg naa jóg naa xool day mel ni nga laal sama tur de ci guddi gi ba fekk na xam naa maa ngi ci deux heures de matin Pape Daouda Sène bari gaa yu baax yëpp ci groupe bi nuyu naa leen ba wopp leen seen yaram jàmm mbay fay laan dégg naa la mbay maa ngi ni de maa ko wax de mbay génn naa gént naa idi idi recherche ak yor réew mi de liyaay lay la la kon nag su ma ko waxee moom gars yi dañ naan kii lu muy wax xanaa kii moom li ma jibi waxoon rek xanaa bakkaree no daa naa jaar fii ñu may ko tuuti benn son yamba mu dóor ko rek daal di xool ci kaw jant bi rek gis idi muy dugg ca pale ba laa ilaha illallah idi riisa sek idi riisa sek idi riisa sek namoon nañ la idi naamoon nañ la Idrissa Seck naamoon naa la président Sénégal naamoon naa la waaw taxal ma ñëw sama ñaan yi nag yàlla na ma yàlla defal li ma bëgg may ma xiwal may ma xaalis defal ma li ma bëgg li ma bëgg de xanaa mooy li ma li africain yi li yàlla nga may may nag li ma bëgg xam nga li ma bëgg mooy dama jékki rek di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàlla def Afrique am ay ay nit ñu gëm seen bopp jekki rek fan yii ma am benn information ci Mali Burkina Faso Niger ñu def benn coalition voilà benn coalition bu baax a baax a baax a baax a baax bu dofa dofa dofa dofa dofa dofa dofa dof bu neex xaw ma neex xaw ma bu gay na Constance kese ma ne ko benn coalition bu dof xam ma coalition bu bu neex sax a bu aw dina neex ci sama xol nag ndax bu ñu nee coalition Mali la Niger Burkina Faso ma ne yaaw yéen day moom ay yéen moom yéen moom yéen moom yéen gis ngeen yoon wi te nag lu ma gëmoon laay wax nii de dama mosu ne Afrique ndax gëm ngeen ne politiciens yi dina néew loolu ñu soppi Afrique Afrique man dama gëm ne ay boromi ngàndaay ñoom ñoo koy soppi de ay boromi fetel ñooy takk loo xam ne day day day suude wu après doog a dak borom après waaw ñu ñu wax borom costume ak borom cravate yi ñëw organiser mais pour mu organiser da di borom costume mënu ko borom ngànnaay ko moom réew yëpp tam noonu la demee noonu gars yi dañoo tojoon tey boobu tojoon tey boobu après léegi nag ñu civilisé yi ñëw nag téye réew mi nag daal di koy civilisé mais réew moom bala moo nekk ci yoon bu baax bu baax tojoon tey bopp rek yéenéew ma ko sama waa réew nag waaye réew moom pour mu baax tojoon tey bopp rek ah dama xam ne réew yi civilisé ci àddina yëpp noonu lañ ko foofu lañ ko jaar de gàddu ngànnaay rek foqar ñi teg fa la nga bëgg moo tax coalition bu baax na coalition bu baax a baax a baax bu defee nag Sénégal après mooy deuxième bi bokk bu ko defee nag moom mooy nekk moom mooy doon geen gi topp seen kaw léegi nag jëm Mali moom mooy njëkk gis yoon wi léegi dañuy jiital Mali rek dañuy jiital Mali Burkina tegu Niger tegu léegi nag ñu dem rek di lekk yenn dëkk ci Afrique xeex lay doon nag bu ku bañ ñu jël la ku bañu ñu jël la comme ni ko kii doon waxee Seex Amar Fuutiyu Taal xeex xeex bu miti su ko defee nag bu ñu amee ba am fukki réew Niger yaay ñëw ñu defal benn bombu nucléaire nag laa ilaha illallah bu nit ñi ne benn ñu ne fukk kon doomi Afrique yi ne ci àdd yëpp ay ñib si bu ñu jekkoon Afrique am nucléaire comme Corée du Nord xam nga Afrique moom pour mu nekk nit ku ñu respecté da ngay am ab bomb taxaw nag nekk réew bu suudewu am bombu nucléaire léegi nag ne ci xuppante bi nag après nag jéem a nag def lu métti tëj réew mi carrément. installé treize mille kiñanta waaye dagg nañ sama audio bi ma ne ko dagg nañ sama audio bi en tout cas daal li woykat bi waxoon sama gént gi bala may dee yàlla na ma ko yàlla woon waaye yàlla ngi may woon tuuti Ismaïla Lo bala ngaa dee yàlla woon na Afrique nekk benn de ndax commencé na Mali te gis nga militaire yi dajaloo du neex a song de. bu dee benn réew nag waaye minute daje na ba àdduna bi ni mu demee nga xam ne Russie léegi dafa dugal loxoom ci Afrique ay sunu borom sunu borom buy defar day mel ni koy yàq barki sama baay Youssouf léegi wala Youssouf sax Russie nee na mu ngi leen di piis nee na yéen yéen fexe leen rek ba taxaw man maay ñëw sampal leen sampal leen ngeen am bombe nucléaire comme ñëpp bu ko defee ngeen ne ci xuppante bi xam nga réew boo demee ba yor nga naay loo xam ne nag ku ne da lay xool nan la laa lii bu ko def non kon nañ waxtaan ñu lay ambargué ak yooyu noonu rek moom nga sa bopp buñ demee ba naan la nañ waxtaan rek naan nañ négocier rek am nga sa bopp bu ko defee nag nga teg say loi nag nga tëj sam réew kan bu bu la neexee te bañ a duggante kenn am nga lépp léegi nag pays africain yi ñàkk xa ñàkk bopp nag nga fexe dëkk di def dialogue politique boo xam ne politique wax la waaw ñenn ñi di la ràng bu ko defee doomi réew yi Afrique yëpp ñi am xaalis ñi nekk North Amérique ak ñi nekk yenn réew yi ñëpp dañuy sawar a ñëw na xam ne réew bi am na sécurité léegi du neex a tas ñëpp ay ñemee ñëwaat Afrique ñëpp ñëpp ay ñemee ñëwaat Afrique bu ko defee xanaa xamale na doole ji mu ngi foofu lii ñuy jooy yëpp lii ñuy jooy yëpp Pape Daouda Sène dégg naa nga ko laaj Grand Thiam gis nga li ñuy jooy ñun li ñuy jooy Grand Thiam di wax ci wóor li ñuy jooy yëpp rek mooy jekku gi mittale rek la Grand Thiam a ngi naan dañoo tas nekk ay ay kii ay ay ay waaso nii dem nii ñii dem nii ñii loolu yëpp jekku gu mital rek gis nga nit gis nga nit ñàkk gu bët gis nga nit boo leen jekkoo bu ñàkk gi nit fu waay neex jaar ku mën sa morom rey lay nekk wor nga ak wor ak ak ignorance bu nekkee ci réew day demati ba nit ñi dootu amati kerta ci def dara moo tax notaange baax man ma bëgg notaange man moo tax not rek a may dundal man man dama gëm nit ki dañ ko war a not waaye ku ne ñu bàyyi la ak ay démocratie ak yu ñàkk xorom yi nii ay démocratie xam nga bu ko defee ki jekku rek moom mooy féete ay kaw ñu naan ay démocratie waaw bu ko defee xam nga rek affaire u sëw yooyu gis nga sëw démocratie sëw démocratie baaxul ci réewu ndóol yi baaxul ci yenn réew yi daa am ñu xam ne ñoom moom démocratie démocratie réew yi nekk ci jekku adduna bi nga xam ne ñoom ñi teg démocratie mooy groupe ñooñu ngay ñu naan borom alal yooyu teg adduna bi nga xam ne lañ ko teg nga xam ne démocratie moom lañ teg Amérique nga xam ne Amérique kenn du ko jiite di def la la neex nga xam ne bureaucratie dafa am ñoom démocratie moo ne arrangé ndax borom alal yooyu noonu moom lañ tuddee sax secteur industriel yi ñu ne ci àddina bi ñoo yor affaire industrie ci àddina bi ñooñu soxlawuñu ay nekk président ñoom dañuy fexe def démocratie di di di di di di di di di di di mën a xar di mën a xar ah espagnol laa ko mën a waaye di manipuler wax kay di manipuler président yi xool suñ président barki démb rek daana cëpp toogagul de waaye mu ngi North Amérique fa lañ fa la xëy mu ngi nii doog a ñëw nga xam ne tey ñaari wax lay wax fi mu ne nii suñ président bi ñu dëkk bi naan man dama ànd ak Israël dama ànd ak Amérique man ñoo sama coalition léegi alliance bu bees la man alliance bu Amérique la leen da bokkut mooy gis na ne léegi moom pour mu pour mu jox ko xaalis FMI jox ko xaalis ak yooyu pour li mu bëgg mooy dafay ñëw taxaw ci groupe boobu rànk barki dem lu mu fi saagawut Poutine Poutine du ñëw fii ndax man libéral la libéral la Poutine du ñëw fii China du ñëw fii waaw man man ci naa fa ab ab ab communisme du ma koy du ma jege waaw Cuba du ma jege ma ne la man communisme moo may dundal ba mu ko waxee laa ko ne yow di nga falu de waaye de nga xamul ne réew seen réew yu ndóol yi communisme moo ko baaxal ñoom nag moom dëgg la ñoom réew moo xam ne la dëgg la réew moo xam ne la daanaka organiser nañ ko dëgg na dañ leen a jekku rek mais tane na tane na Sénégal ndax genn notel gu du fi bëri nañ ndóol nag genn notel gi fi bëri waaye man sama wàllu bopp man man man man man man man Bakary Ndo man communisme moo may dundal man ay démocratie ak yooyu non non non démocratie daa am ñu ko moom ñooñu noonu ñooñu ma ñu wax léegi léegi secteur ñu ko waxee sax impresario yooyu borom alal yi ci borom industrie yi ci àddina bi rek xam na ñoom xamali naan black rock ci la bokk ak industrie famille ci raj raccaar bi xam raycaar bi nekk erdo Amérique nga xam ne ñooñu seen àlluna seen seen seen seen seenaat seen seen alal bichon de bichon de bichon waaw bu ko bu ko bu ko américain yox sax damay damay na ay bichon de biyon de bichon am na ñoom ñoo yor black rock nga xam ne sa waay ñaari état leen ëpp alal ci àddina bi muy état Amérique ak état China nga xam ne seen alal daa bare bare bare bare bare bare dama toog di ko wax benn waaye mu ne ma loolu est-ce que dëgg la ma ne ko moo ndax li nga dëkk Sénégal rek gis ay Macky Sall ak sa waay gis ay commerçant njaareem yi ñuy yor ay boutique nga foog ne am nañ xaalis ñi amuñu xaalis barki sëñ am na gars yi danoo yoran yor yor yor lañ def yor lañ def te jëlewuñ ko fenn nag lu dul réew yi rek yi ñuy not bu ñëwee ñëw Afrique ndóol leew leen jël la fa baax jox gars yi tuuti bu ko defee jël la fa def yokk seen alal nii rek la demee bu demee Afghanistan taal ko jël la fa nekk dem Arabie Saoudite jël la fa nekk yem non nag loolu tax ñu bëri la di waaye am ñoom yoruñu woon dara mais dañoo teg seen i arme ak seen i militaire not ñëpp jël yëpp teg seen kanam lii rek la de su ko defee nag réew mi amul ci chinois bi ñu ko njëkkee xam bi ñu njëkkee xam ne ñii ci ñoom la ñuy dund dañoo teg téye seen diggante ak seen ñooñu waaw mbir mi fayda fayda fayda fayda la ci nooy def ba moom teel a defar seen yëpp nag waaw waaye li njëkk a wut mooy arme bu baax rek arme bu baax organisé wu bu ko defee nga am alal li ñëpp alal yàggut réew mu bëgg a am alal da ngay téye sa lépp yor sa lépp di dawal soo ko dawalee benn cinquante ans rek sa waay ñun duñ ko fekkee mais nga bokk ci réew yu baax yi eh comment va kii sama baay Afrique am arme ay bu ko amoon arme bu dëgër ba xam ne fi mu ne Russie mu ngi taxaw di xool ar Russie fu ne nii jaaxleen ci àddina bi bëgg na ñoo xam ne dafay def ak ñoom benn coalition yoo xam ne pour gars yi dañoo dañ ko teg bët bëgg na am ñu ku am doole comme moom ku mel ni Kina ah te loolu Afrique rek la ko mën a amee gisut ci suuf yi benn dëkk bu mu ko mën a am lu dul Afrique su dee africain yi pour ñu nekk benn puissance boo xam ne dafay mën a taxaw équilibre ah China dëgg la mais China bi chaque jour Russie yi dafay am benn benn kii ndax China moom li muy dawal da xam na ko mais benn puissance militaire bu Russie am doole boo xam ne Russie dafay équilibre loolu la Russie di wër Russie bëgg na ko mu ngi piis africain yi ne leen pour àdduna bi équilibre mooy yéen da ngeen am doole joo xam ne du ngeen amul alal sax ngeen am doole rek bokk ci carte gi gis na leen su ko amee léegi affaire day kii mais gisal américains yi bañ tegee teg na lee teg ne européens yi nii ah dem ci Asie ñu am fa seen i quoi seen i dem ba Japon ñu am fa ah sapone yi tege ne sapone yi ah ah dem ba Australie ñu am ne waa Australie gars yi ay Canada gars yi nekk seen alliance ah ñu tege noonu Russie xam na lii lii affaire bi sa carte gi carte gi du carte gi foofu la nekk foofu la mbir mi léegi léegi mu ngi leen di piis du ngeen fexee dem dajaloo nekk benn dikki benn am arme bu dëgër léegi nag teg li ngeen bëgg ndax gars yi seen xaalis yu bëri fi ñu am ci yéen lañ ko jële de billaay boo déggee dégg naa diggante Rwanda ak kii ay waay waay waay waay maa ngi fàtte tur bi sax ay waay waay waay waay waay maa ngi dellusi ma ne ko maa ngi naan Rwanda Congo laay bëgg a wax Congo nga xam ne dafa nekk ca suuf si ñu bu baax rek. nga xam ne foofu rek moo nekkoon fortune Afrique alalu Afrique foofu la war na jóge ñu am doole comme nit ñëpp doole ak alal dafay xam-xam ñëw xam nu ko américain yi di wooyee sax nee na nee na nee na nee na maayin ina monin monin ina maayin ñaar yëpp dafay andi xam-xam mais monin maayin bu baax. mën bi ñëwee waaye nag ñaar yëpp dafa war a ñëwoon doole jee njëkk a ñëw ba pare nga am kattan dajaloo kenn wan laa not waaye boo boo ci yorul benn waaye yaay nekk yaay nekk yaay nekk xobu xobu xobu gis nga carte yaay bu ñu carte xob yi yaa nekk xob bi barki sama baay yaay nekk xob bi benn booy dama ko day wax Sénégal ñuy mu ne ma léegi yii ngay wax nii yëpp ñun bu ci suñu yoon newul nag ñuy wut jàmm toog jàpp suñu jàmm ma ne da nga foog na loolu tax na nga am jàmm mu ne ma ah léegi ñun bu nee ñun xeexuñu ñu ngi toog lekk jàpp suñu jàmm ma ne ko loolu taxul nga am jàmm xam nga li tax yow scienceal fii rek lu ndaw laa lay wax ne misaal laa lay wax rek ñu koy am luñ bëgg ci njaareem ñu koy defar benn groupe fii tudde leen ay tudde leen ay terroriste ñu koy daal di bàyyi loolu lépp lu ngeen jàpp teg leen fitna goo xam ne du ngeen ci doo ci génn ñooñu ñëw jaay la doole loo bëgg loo bëggul ñu def loola ko wala ñu xëy ndóol loola ngeen dugg ci gaale yi bu nga defee genwal gi dee ñu jël seen i organe dem jaayi ji ko loolu yëpp ay pexe la da nga foog yaa ngi ci jàmm nii xolal dañ lay yóbbu ci benn gis nga àdduna bi boo ci dañ lay yóbbu ci benn tension boo xam ne xolal njaayam organe sax dañ la koy force di nga ko def force ndax da ngay xiif waaye ñaanal na ci yàlla mën si ñi lay jàmm nga ci sa ngoom moom sa bopp nga fi àdduna bi toll nga xam ne gars yi dañoo dem ba sës ci ci wut alal war na yàlla sa organi sax dañ koy dañ koy mu ngi ñu ngi koy xool buñ la notee kat yëpp xool xool xam ne yow kat jël nañ sa yëpp amatuñ soxla jaw ñu ne waa ji day dund te dundam amul njëriñ nag waa ji day dund te dund amul njëriñ ñu ne en tout cas am na organes yu baax de lu kaay ñu xool bàkkari na nag ñu ne tal na ñu ne kii boo dagee xool bi dag kër bi ay kii boo ko jaayee pa bu magat booba ne China jël deret ji non xaalis la ñu def ma weccat non foofu ngay toll gars yi de bawuñ dara buñ la notee lépp la ñuy jël ci yow barki yàlla yow moom mooy xoolu caag mu ne ma ah ma ne kon ma yeboo gas ba mu xool ma ne kon noonu la demee affaire yi boo xeexul toog di xoole nii taxul nga rëcc de gars yi say organe sax baawuñ ko ku laajal laajal Afghanistan boo yi nga xam ne dañu Afghanistan problème bañ fa am rek ak Afrique sax ngay wax jarul ngay dem Afrique neen Afrique rek ñu dugg ci gaal yëpp dee da nga xam ne xaal xaaj bi yëpp dañoo dee nii gars yi def nañ leen seen i seen i xol a ngi dund ci biir i jàmbur ak seen i seen i seen i organes yu bare ngi ci cëri jomm daal chinois yeeg russiens yi barke sama bàyyi laa la wax ñun yal na yàlla mu dul ci ndool rek loolu mooy andi yi ngeen di wax yëpp grand Thiam maa ngi dégg mu koy développé mooy tax bañante geeg ndax fi da ci bëri dof yoo xam ne day ne suñu biir moom bu amee foog na moom moo moo gën ñëpp ay feeñ sax ci nit ñi comme li ngay wax ci benn compte bi billaay am na ñoom bu ñu amee tuuti foog na ñoom ñoo toog ci ka africain yëpp moo tax su ma wax Sénégal ma ne man man damay yërëm koo xam ne dafa foog na moo gën dëkk dëkk bi ma ne ko ñàkk xam moo la jàpp waaye boo gëstu àdduna bi ñun ni ñu ci jëlee ndaare doo tiita doo tiit doo tiitaru ci sa kaw benn mbokk dangay fexe xay sa mbokk génn ci notel kii bi ma dooleel ko ci beneen ma ne ko xanaa xamoon na yow àdduna bi boo fi jëlee ndaara ba gars yi di la seetaan nga foog na yow bokkoo ci xeex bi yow nit ñi jéngu nga toog naa non garaawoon nañ rek arabeer nañ kay àdduna bi jeex na pare xoolal taxoon nga rek ci di nga am na benn scientifique yi nga xam ne dañuy test ay garab yeeg yu bari naa ne gis nga dañ naan dañuy jël onexoo maanaam lëgu lëgu China bi India la India benn lëg goo xam ne India la Inde la nekk daal onexoo la China Russie kii daal lañ ko India benn lëg goo moom lañ test mooy jinax yooyu ñu test rek yow gis nga bu bu àdduna bi demee dem dem dem ba xam ne yow moom sa waay tekkee doo dara ci dëkk bi bañoo doo kaas doo mer doo doo suufli doo dékono def dara yow test bi yow lañ koy forcé naan non obligatoire la léegi non l'africain non ñu ñu ñu ñu test kii bi seen nekkin ci àdduna bi dañ fa war a nekk du ñu tasal yenn garab yi loolu obligatoire la léegi kooku dafa war a nekk dañ ko war a wootee non bul xam boo ndoolee kaasoo merew jénguwoo jéemu alliance ak bokk kenn lijjanti woo xeexoo sa waay lépp la ñuy test ci yow buñ ko defewul ni defee ko nee dañuy def dañuy jël ku mel ni Macky Sall barke yàlla billaay ku mel ni xam nga ni ku mel ni Macky Sall buñ ko jëlee ne ko jàppal ñu rek na manifestant yi nga jàppal ñu cinquante sénégalais na kilo moo am ci réew mi rek na problème am rek mu jàpp cinquante sénégalais tes loolu tes leen feebar bi tëj leen fañ tëj ñuy dee par benn buñ dundee doon buñ dundee dee dee ak moom jàpp na leen comme na buur ya doon def xanaa xamoo la buur ya doon def moom la ñuy def rek ñun suñ président yi moom la ñuy def rek bu lu andi tes ko buñ ko joxee buñ dee garab tes ko ci réew mi ñu bàyyi ñu tes ko ci comme buur yi nañ doon def rek buñ xiifee daal di jaay ci askan wi dem lekk loolu yëpp mu ngi am ba léegi de ñoom buñ xiifee ah dañ jël li askan wi moom daal di dem jël ko xiifuñ sax xiifuñ dañoo buur xam nga xiifuñ suñ njiit yi moom xam ngeen na xiifuñ mais doo xam lu leen dal doo xam lu leen dal waaye dog kii bu mag yàgg rek nit ki moom loolu tubaab bi lim lim lim lim lim lim leen yare li mu njëkk a xeex mooy fexe ba docteur li gars yi daan docteur dina la fexe ba assimilé la nga xam ne day jëlal dalay day dafa dewale sa xel bi ba yow gëm nga ne moom yow ñii nii lañ war a dunde ba dee moo tax loo fa def rek garaawut ñii nii lañ war a dunde ba dee ba adduna bi xëy jeex ba nu ko defee sa yaram yow loo réew moom loo fa def rek doo leen yërëm ndax da nga jàpp ne ñii moom nii la ñu war a dundee ba kay àdduna bi jeex soppe ko du fi mos a am kon kay wax dëgg yàlla nag boo boo amee àqin ne ñii moom nii la war a demee ba àdduna bi tukki kay wax dëgg yàlla nag jarta defar jarta defar de boo gëmee ne nii nii la war a demee ba àdduna bi jeex du jar defar de ndax ñii duñ soppe ko fii ñoom dañoo nekk société société limitée limitée société boo xam dañoo limite nga am fi leen yem mënuñu koo puus mënuñu koo xam nga golo moom fi mu yem fi la yem golo moom ni waaw àddina waa nga mais golo moom fi mu yem fi mu yéeg wàcc lekk naan say fi la yem foofu la yem mënu cee yokk leneen xanaa nit ñi jéem koo yokkloo mu def def waaye du moom daal fa mu yem rek lay yem golo rek lay wattukaat nekkaat waaye nit nag foofu la passé nag nit moom buñ la dog buñ la jàppee yar la tàggat la ci jikko benn façon doxin wi yow da foofu nga war a yem rek foofu nga war a yem rek ah damay laal diine yi rek xoolal diine yi Sénégal rek groupe goo xam ne sa waay dinaa leen tooj nag sa waay loo wax ñu neen lii baaxut te ñoom jéemuñu andi lu yóbbu réew ma ca kanam fi ci leen def nit ay naar ñoo xam dañoo toog rek da seen di xaar yàlla àllaaxira ñëw ñu dee dem àjjana sa waay ah génn foofu dana foofu baaxut foofu moom moo fay wax diine ji moom moo fay wax na da lay yokk gaayam dañu lay xoole bëtu kii moom ban nga dégg nañ dem muy waxi faramason bu ñëwaatee di critiquer diine moom moom moom est-ce que du faramason waaye faramason la faramason la sama sama waa ji faramason la boobu lañ may dëggal dañ naan sa waay faramason la du caaxaan ah ay dama xam ne sa waay man dugal suñu réew ma ñaari atu farmason réew ma baax sax moo ma tane réew ma ne mu nekk di sa waay ay ilimaan yoo xam ne ñooy def ak nit ñi dil barki sëñ Bamba dama am na lu ma gis Sénégal dinaa ko gëñ sëñ Bamba wala bañ ko ci ma Alaaji Malik wala biñ ko ci barki yonent bi laa wax wala ma gëñ ko ci barki yonent bi rek barki yonent bi laa wax su ma defee noonu xanaa nañoo génn ci nañ ma génn ci farmason bi barki yonent bi laa wax barki yonent bi ñàkk dina topp Sénégal nit ba mu ba mu dugg ci benn famille tas ko na te ilimaan la kat ilimaan buy jiite la kat ñooy moo yor daara ji def mais maanaam gis na moom njëriñam ci milaasu nit gi mu topp ci kër gi di ngeen ko jaay di ngeen ko jaay waaw gi da ca war a lii topp topp topp ba ñu jaay kër gi mu am ca lam ci am mbooloom mbokk ma moo koy tas ñu amatuñ fu ñu dëkk waaw diine ji wax nañ ko war a jaay nii lañ ko war a jaay kër gi buñ ko jaayat buñ ko deful nii borom du tàlli dañ ko war a milaas ma ne sarab xooni milaas sarab xooni milaas bu bu Sénégal sa waay nit koo xam dafa màgge ci kër màgge fa yaroo fa ñu fexe jaayloo ko kër baayam rek sa waay mu dem wuti fu mu dëkk sarab xooni loolu man nag moom diine ji nu ma nee jàppe mais loolu du yëfu nit kër gu nit yaroo war ko jaay kooku lu lu waa warta def nit jaay ko ku fa mën a dëkk dëkk fa ku mënta dëkk seeti foo dem waaye ñu fexe jaayloo ñu bëggut a jaay ba ñëpp wut yow jëm amooloo jënd dañ lay jaayloo force wala ñu dem daal di daggat kër gi daggat ko daggat ko nekk puxuf bu tuuti nga ne léegi sa wàll ci kër gi ñu jaay li ci des yëpp nga xam ne pukus lañ lay bàyyi ci kër gi ndax amoo moyen te ni koy def ay nit ñoo xam ne da ci inaan buñ ko deful borom tàll yi te dañ ciy am seen wàll sarab xooni loolu dama dama ko gis dama ko gis Sénégal police mos a def loolu police Sénégal def loolu ilimaani suñu waa koñ gis naa nit ñu ko def jaayloo nit seen kër xaaj loo nit ñi seen kër ili milage kan la koy def bakare na mënu ko def na xamul nuñ koy defee milage Sénégal arab xool ni loolu bokk na ci li ma gën a naqari Sénégal nag sa waaye ku amul moyen nga fexe jaayloo ko këram mu dem dëkk mu dem seeti muy toltolaan xamul fu mu dëkk juddoo ci kër baaye màgge fa ñu xëy am ca parti bu baax ñu xëy ne ko da ngeen koy jaay na amoo moyen boo jënde wala ñu fexe jaay loola xaaj loo kër ngeen dëkk su tuut su espace bu tuuti non loolu loi bu ñu war a lijjantiwaat la Sénégal waaw bu ñu war a lijjanti wax naa waa nag doog naa ci benn jaawax koñ na sa waaye lii xam ne yàlla moo ko waa buñ ko deful borom du tàlli man leen lii du yëfu nit nit du dund am ñaari soxna wala ba ñett dee ba fi ay njaboot ku ne bëgg a jël ab daggit yóbbu ko war ko def ku mën a dëkk dëkk ku am moyen dem ba kër gi dem ñu mun amul moyen dëkk fii noonu looy waxee defu nit waaye sa waay ñen ñi amoon nañu rànke nag ñeneen ñi rek jaay kër gi ñeneen ñi torox ñen ñi waaye loolu du yëfu nit waay ak coxor la waay ak soxor la ñi amul moyen ñi am moyen nag am seen kër pare jaayloo nañu seen kër tas kër gi ñen ñi dem toog di torox ñen ñi ne ci jàmm di ree te loolu rek lañ ci jublu ah loolu lañ ci jublu man dama ko gis am na yoo xam boo koy wax sa sawaay alma yem fii rek jaa ngeen jëf
waaw tonton Thiam maa ngi lay nuyuwaat bu baax seen jaraaf ci kaw ak Babacar Endo ngoonu Babacar Endo yi mooy waxtaanu Babacar Endo yi Babacar ñu ngi lay bëggee bu baax quoi sa waxtaan yi am na solo lool temps yi moom yaa téye affaire yi yaa jaam jaam moom du daw moom dafa moom kii la rek benn circuit la rek ku pare rek dem keneen ñëw moom jaam moom du daw du du tàyyi comme Babacar Endo ni nga ko waxee ci El Hadj Niass El Hadj Niass moom moom daal pour moom Macky Sall daal dafa weex lépp a weex tàll amul tax amul tâche amul dara kon nag moo tax looloo tax mu mën a débat ak ku nekk moom moom daanaka fa mu jàppalee jàpp ah jeex na. maa ngi lay nuyu di la siyaar Maodo maa ngi lay siyaar bu baax ñu ñu ambet mbóob jaraaf maa ngi lay nuyu di la siyaar waaye tonton Thiam dégg naa bu baax a baax li nga xam mooy bon li taxoon ma posé la question bi bon yow li ñuy naan fay fay metti foofu ngay duut baaraam quoi mais tonton Thiam xam nga bon l'espoir est permis parce que boo xoolee fa ñu jóge ñun fa ñu jóge bokk man je parle que ñun waa patriote yi Pastef ñi nga xam ne dañu bëgg liñ koy waxee li nga xam ne mooy sunu slogan li ñëpp bokk ñëpp jot ci te defar jikko yi li ñu naan lu ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu balaa nga ko def il faut nga defar jikko yi ba pare tey exemple bi ñuy joxe Rwanda bon ak la fa nekk yëpp gis nañ président bi moom moo njëkk a wane le bon exemple ba mu wooyee nit ñi si set chaque dimanche ay ati at ay ati at grand Thiam président bi day génn moog waa këram ñu sol ay short sol seeni t-shirt di nettoyer dëkk bi di saxal ay garab gis nga yooyu yëpp citoyenneté def mais yooyu noonu yooyu yooyu yooyu Sénégal tonton Thiam doo ko fay gis mais fii damay gis sax laa wax fii nii en Italie da ngay gis benn école école madame beeg ay élèves am ak responsable yeeg ak ñi nga xam ne mooy surveillant yi ñu dajaloo groupe man damay gis sama doom bi ñu ne ñu ne tey dañuy def journée de placement dem ci àll bi foo xam ne àll kese la ñu dem fa saxal fa ay ji def fa ay ay ay doomu doomu garab ñu leer na ne foofu fii ak benn 10 ans garab gi dina dina dina am garab de plus xale bu ci nekk dina saxal benn garab ñoom ni la ñuy xeexee changement climatique yi waaw changement climatique ñoom dafa am lu ñu koy xeexee léegi gis nga yooyu yëpp ñun boo ko ñëwee nga boole ko ci Sénégal li ñu naan àll bi àll bi nga xam ne ñëpp a ko bokk foofu kenn waru ko laal ñu saxal fa ay garab def fa ay affaire waaye Sénégal Grand Thiam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor responsable yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wane le bon exemple ñoom ñoo njëkk a caxat caxatee ñoom ñoo njëkk a salfaañi li nga xam ne moom mooy yoon ñoom doxuñu ci xel doxuñu ci la nga xam ne moom mooy le bien-être du peuple ñoom doxuñu ci loolu. moo tax nag bu ñu nee l'espoir est permis gouvernement bi war a ñëw am na yu tout yu bari yoo xam ne ni mos peut-être que nit ki mën na ko jàppee ay ay détails mais yooyu noonu ci lañ war a woo askan bi du affaire alal avant tout du alal mooy que ñëpp booloo ñu liggéey li ñu moom. ñëpp booloo ñu setal li ñu moom yooyu la avant tout bu ñu paree nag doo ko wax ci ay investissement wu ay ay ay ay télé ay taleeg ay stade ak affaire ñu woon ñi daal ci li nga xam ne moom mooy yi ñuy jàpp ne moo gën a ndaw te man yaakaar naa moo gën a rëy parce que da ngay gis benn sénégalais buy benn jamono yële am na benn vidéo buy circuler sénégalais buy dox buy dox bu bu bu bu nekk ci benn apprenti ci digg kaar bi la taxaw di di tuur ndox ci digg tali bi. nit ñi di ko filmer moom yëgalu ko yaramam sax xam nga kooku noonu xel bi am na lu bëri loo xam ne mu ngi ci xel bi tant que amul foo ko woo kooku mënu la fa fekk si parce que kooku xelam mu ngi jàpp lenn moom instant boobu buggul sax bàyyi oto bi parce que xaalis bi muy encaissé moom moo ko moom moo ko ëppal importance que moom moo tuur ndox fa nga xam ne mooy bien public xam nga moo tax daal grand ci am l'espoir est permis mais la ngay wax moom kenn mënu koo weddi yow fa ngay fa fa fa fay metti foofu ngay bës il faut ñu affronter ko sunu Sénégal la léegi solution nag moom man foofu nag du ma d'accord ak yow parce que solution mën na am parce que problème boo gis rek ay nit ñoo koy ñoo koy soobu lijjanti ko sa classe gi nga xam ne xam nañ li xew ñoom war nañu bokk ci li gën a sensibiliser askan bi war nañ bokk ci li nga xam ne ñoom ñooy indil solution askan bi grand ci am parce que yéen xam ngeen li mbir mi demee maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar dama nekk ci waatu nag mais bu ci kanamee mën na ma ñëwaat.
waa tonton Thiam. waaw ma ñëw rek ay gali li nga xam ne laa doon wax dama nekk ci waar yi xam nga rek affaire xaw xatoon loolu moo tax mais tonton Thiam gis nga ci wàllum xeet yi nii wàllum li nga xam ne mooy wàllum waasooy li nga xam ne fi ñu toll nii instant bii nii ñun encore une fois toujours rek man responsabilité bi dama koy jël sotti ko ci gouvernement bi parce que Sénégal bu fekkee ne ci wàllum diine ak ci wàllum xeet yeeg lépp Sénégal daanaka musuta am jafe-jafe yooyu musuta am jafe-jafe yooyu parce que man bu fekkee ne bon bu ñuy bu ñuy am discussion bu ñu amee ay doute ci éducation bi ñuy jox yaakaar naa ne éducation bi ñuy jox diviser wuñu waaw ci côté boobu moom y a pas de division si li ma gis boog man li ma dund laay wax parce que ñun ba ñuy juddu ba ñu màggee dañu amoon ay xaritu chrétien dañu amoon ay xaritu ñëpp bokk waaw ñun ñëpp amul woon bokk kenn identifié lu woon ci sa boppam ci man séeréer laa wala kii laa ñun ñëpp ay c'était ay ay ay xarit lañ woon bon ñun ñëpp benn lañ woon daal benn lañ woon ñun loolu lañ ñu loolu la ñu màggee mais fi ñu toll nii Grand Thiam dafa am loo xam ne dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo taxaw di def ay ay ay ay ay wàllum boddante di xeeb ay ay ay ay xeet parce que gouvernement bi ñoom dañu yaakaar ne bu ñu diviser sénégalais rek ba sénégalais yi mën a jaxasoo di xeex seen biir ñoom dinañ fi gën a mën a toog mën a continuer régner
gis nañ fi exemple yi nga xam ne député moo fi taxaw ne troisième mandat bi boog bon jaasi lañ koy la ñuy génnee képp ku ci opposé wu ñu ñu ñu ñu ñu coot la xaw ma nan la ko waxatee gis nañ fi leneen ay yeneen wax yoo xam ne bon kenn mënu fi nekk di si di cité yëpp mais ñoom li ñuy def ci wàllum xeet Macky Sall dem na fi dem ba fële fële fële mu dëkk di wax ak nit ñi di làq pulaar di làq di leen won ne carrément ne bon moom nañ ko votel parce que lii lañ lii lañ te loolu nag bon man yaakaar naa jusqu'à présent ba léegi nouvelle génération bii nii fi nekk nii comme ci su mel ni ay Sonko ak ay genre Déthié Fall ak ñii fi nekk nii instant bii nii musuñu génn di wax ci genre discours yooyu bu ma lemee Déthié Fall man Déthié Fall dama bu dafa bokk ci ñi nga xam ne man dama dama ko dama ko dama ko dama ko kii bokk génération bii ma gis nii bokk ñi nga xam ne bokk Sénégal da leen tax a jóg ñoom seen campagne musuñu fi wax ay waxu beddeeku ay waxu xeet mais nag ñi ñuy jiite nii dañ koo dañ koo wone fësal ko mais ñoom gëmuñu ko mais ngir seen intérêt bopp moom moo tax te léegi nag askan bi nga xam ne ñoom ne sont pas conscients ñoom ñooy dugg ci loolu man mi am na xarit boo xam ne maa ngi moom ñoo màggandoo judoondoo bokk ak moom lépp moom fa mu identifié wu dafa identifié wu ndax wàllum xeet moom moo tax moom mu contre ma si samay position nag man ak Pastef parce que moom fa mu bokk fa mu bokk bokk fa ngir njëriñu lenn mais dafa bokk ngir affaire u xeet moo tax mu topp Macky Sall ba léegi ngir affaire u xeet parce que xeetam la waaw man nag lu mu métti métti métti maa ngi koy damay waxtaan ak moom parce que nu ñu doon waxtaanee autrefois waxtaanee tu ñu noonu parce que li ko waral moom mooy que moom dafa gis samay position ma saf sàpp ci Pastef dugg ci takk ci rëpp ngir la bien commun ngir li ñu bokk ñëpp jot ci. waaw ñu dindi bàddum xeet wàllum lépp te kooku moom man xam naa ne Macky Sall defalu ko un franc parce que immigré la fii moom moo yor waa këram. kon nag encore une fois ñi ñooñu la ñu war a sensibiliser wan leen ne mbir mi du fi ñu ko fi ñu ko yaakaaree ñoom kon nag li ñuy naan kale kalay war a wax sangul bu tilimee kon nag foofu moom munu ma munoo munoo munoo munoo ko teg ci yoon ah kala war a wax sangul moom bu tilimee munul ñemewul jël sa sa ndox ak saam beneen dalay sang parce que moom dafa tilim léegi nag grand am gis nga ñu ñi ñuy jiite ñoom ñoo war a wane la bon exemple avant tout. mbir mi méttiwul de mbir mi méttiwul mbir mi méttiwul male ngi nii ak seen tribu yi fa nekk ñëpp instant bii nii ñëpp a jox Assimi Goïta bopp ngir le bien commun te ñu ngi ciy gis seen bopp nag parce que tëj nañ leen fi ay weeri weeri ay ati ati at lañ leen lañ leen lañ leen tëj ak ay règlement wu CEDEAO xaw ma lan fan la Mali mujj Mali mu ngi teg ay accord am Mali mu ngi teg ay société am di di raffiner oram di di di teg ay loo xam ne ni moos réew mi ëllëg dina ci gis seen bopp ñun nag foofu lañ jëm quoi grand champ parce que ñun moom xam naa ne affaire bu beddee kon di xeex man man bokk man bokk man gëwuma ne loolu man mën na ma dévier quoi. parce que man Ousmane Sonko dama koy déglu bu baax a baax a baax te xam naa nag moom fii mu ñu yób fii mu ñu jëmale moom moom moom suñu intérêt la quoi mais nag grand champ l'espoir est permis bu ñu découragé l'espoir est permis incha allah. li mbir mi rek mooy boo amee njiit ku baax rek nga xam ne kàddoom daf ko jëmale si ñëpp won na ñëpp ñun ñëpp a bokk li mu yor la nga xam ne ngir askan bi la mu sedd si ñëpp ñëpp di si gis seen bopp waaw ci lieu de lieu de travaux yi dootuñu choisir kan moo fay liggéey ndax xeet xeet ba fa nekk ministre ba fa nekk wala lii yooyu yëpp dañ koy teg ci yoon mais nag il faut du temps il faut du temps patience patience incha allah maa ngi lay nuyu di la char bu baax
allo salaamaaleykum famille forum rajo Allo Dakar maa leen di nuyu di leen ziar man la Laye Diop Laye Boston di nuyu waa forum bi yëpp di nuyu sama gars yëpp ñu ngi leen ziar bu wër wër wër ñu ñoo fekk ci buntu bi Pape Daouda Sène ziar bu wër Bakar Inde ziar bu wër Maodo Malela ziar bu wër Grand Thiam ziar bu wër wër sama gars yéen yëpp maa leen di nuyu di leen ziar xaaral ma bañ a guddal nuyoo bi rek ñoom Issa Diarra Pape Daouda Sène lu ko bàccali ñoom Ibrahima Bodian sama gars yéen ñëpp maa ngi leen nuyu del ziar dama doon répliquer fii rek ci audio Bakar Endo bi Bakar Endo maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér a wér gëj nañ laa dégg j'espère que yaa ngi am jàmm bu baax nuyu suñu gars yi nekk foofu Argentine ñoom Pape Kane ak euh, suñu gars yëpp nuyu ñu leen bu baax a baax mais da nga wax lu am solo nag quoi Euh, bon man j'attaque pas la religion mais damay xool aussi ni en général euh, euh, surtout au Sénégal maanaam euh, polygamie le fait que ñu am ay ñaari jabar ak yooyu yu ci bëri moo moo moo yokk pauvreté bi Euh, pour rebondir fi nga doon wax ni nga xam ni famille yoo xam ni dañuy dem ba borom kër yi bu génnee àdduna rek gars yi taf tafee affaire bi jéem a jaay la mu am xam nga daal di koy tasaare ku ne daal di jël li nga am daal di dem après ku nekk daal di dellu nekkaat ci pauvreté loolu li koy waral lu ci bari c'est parce que ay famille monogame lay ay fami- famille monogame lay doon quoi Euh, dama juum ay famille polygame maanaam ay famille la boo xam ni waa ji xëy na day am ay jabar yu bari donc euh, ku nekk yaa ngi teg sa wa euh, bët ci alal en général euh, bu dee nit ki benn fam benn jabar dong la am loolu mën nañ koo éviter quoi mais gis naa ne Sénégal euh, boo xëyee am ñaar wala lu ko ëpp rek daanaka moom mel na ni fi ne ni yow euh, alalu nit ñi ngay daal di lool quoi maanaam yow amalatoo kenn njariñ loolu ñi ngay xaar kañ nga dee pour ñu jéem a jël sa alal tasaare ko ci fi ñu koy tasaaree nag man pour man foofu laa amee problème bon nee nañ diina ji def ni dañu sedd xaw ma nañ ko boole seddale jaay xaw ma mais li ma ci njëkk a am problème mooy le fait que ngay dund sa àdduna dem ba génn àdduna yow nga ak sa sutura ak lépp nga denc ko nga dem ba génn àdduna ñu war laa teg ci table bi tasaare li nga am pour mën koo séddoo bon nee nañ ma nag euh, boo bëggul nit ñi xam ko soxlawul nit ñi xam ko mën ngeen indi benn ilimaan wala ku ñu wóolu ñu mën a toog xam nga euh, ku ko mën a seede peut-être loolu mën naa cee comprendre mais nanguwuma nit liggéey ci àddunaam ba pare ak suturaam ba mu àndal ak yépp dem ba génn àdduna ñu tasaare ko ñi naan kii lii lay am lii lay am te loolu moom je suis contre quoi léegi deuxième aspect bi euh, mooy li nga wax ni ñuy jaayee ak ni ñuy saax-saaxee euh, euh, euh, euh, alalu ki nga xam ni moom moo génn àdduna xam nga d'ailleurs bon paa yu njëkk yi am na ci ñoo xam ne vraiment ils étaient très intelligents paa yu yeewu la ñu woon surtout paa yi ko amoon ay kër ay HLM ak kër yi nga xam ne ay sika ba leen jox ak affaire yooyu paa yooyu li ñu doon def mooy dañ daan fay par mois parce que kër yi da ngay jël di fay ba keroog ngay matal léegi soo matalee ñu jox la say kayit mais ñu ci bëri ci ñoom dañoo dem ba di fay di fay ba mu des leen cinq mille wala mu des leen mille francs ñu bañ koo fay léegi ñoom tant que fayuñu agence bi kenn du leen jox seen kayit donc famille bi mënuñoo gis kayit kër bu ñuy mën a jaay pour seddoo ñoom liñ ko daan li tax ñu daan def loolu pour euh, prévenir problème bi nga wax ni nga xam ne dañuy ñëw rek jaay kër gi après ku ne dem ñëpp daal di dem ku ne daal di dem nekkaat ci ndóol waaye li ñu daan def mooy kër gi kenn du ko mën a jaay mais ku mën a dem na nga dem ku mënul dem au moins am nga foo dëkk am nga foo xam ne boo fa mën nga faa yow te loolu man je pense que euh, vraiment chapeau ci paa yi yooyu noonu ak xal ak xalaat boobu noonu parce que loolu ñu defoon boo gisee ay kër yu bari ay ay Médina ay ay ay ay um, Gueule Tapée euh, ay Fass côté yooyu kë- kër yu ci bari fi mu ne nii ah, li tax mu- ay seen famille dëkk fa ba léegi c'est parce que gisuñu këyit ba ñu mën a jaay ñoom nag ñoo ko moom parce que kenn du leen fa génne mais euh, ñu ci bari famille bi dañ koo lijjantiwul bon xam nañ ni kenn du leen génne lijjanti ko fekk paa ba benn cinq mille francs wala benn dix mille francs la deseel aslem wala sikap bañ koo fay bàyyi ko ko léegi nag pour que nit ñi famille bi mën a toog au moins euh, garder seen dignité daal maanaam bu ñu demee ba ñu mën a dem comme li nga wax ñu mën a dem amal seen bopp ñu dem ñi nga xam ne mënuñoo demal seen bopp ñu mën a toog ci kër gi préserver ko loolu moom je pense que ni euh, war nañu génn xalaat surtout en tant que société nan la ñuy def quoi parce que euh, je suis pas contre la polygamie quoi bon personnellement duma ko def mais gisuma njariñam quoi Euh, mais xam xam naa ne suñu société war nañoo jéem a xool nan lañ koy encadrer parce que vraiment li muy indi ci li muy yokk daanaka ndóol gi nekk Sénégal yëpp looloo ko indi Euh, bu ñu mënoon a bu fekkee mënta ñàkk ba mënta ñàkk dañu jéem a xool ni ñu koy encadrer ak ni ñuy préserver ak encadrer ñi nga xam ne ñoo ko seq quoi parce que sinon lii fi ñu ko ni muy demee nii nii nii amin l'histoire histoire montré na ko ba pare bu mën nañoo dëgër bopp di continuer mais nii rek lay continuer dañuy gën a ndool di gën a ndool di gën a ndool di gën a ndool mais merci beaucoup euh, Bakar Endo guddal naa nag mais nag bon da ngaa wax lu am solo euh, fekk ma fàttali ko benn jour benn pas expliqué ma woon na ko yàgg na nag quoi après da nga ko wax rek sama xel dem ci loolu quoi moo taxawoon moo ni woon xaaral ma euh, jël euh, sa sa sa audio bi au rebond man tamit jéem ci xaw a yaatal tuuti quoi mais jaajëf jaajëf jaajëf merci beaucoup sama gars yi yaa ngi jaa ngeen jëf euh, passe une très bonne journée
waaw waaw Pape Daouda sama jarbaat maa ngi lay ziar di nuyu euh, Maodo Mandela maa ngi koy ziar bu baax a baax borom baax Euh, di xam naa damaa jàpp dafa naa maa ngi nuyu Bakar Inde tam waaye euh, li li nga wax xam naa damaa jàpp nii sax waaye li ngay wax nii maanaam éducation bi moo manqué ci dëkk boobu moo tax nit ñi man la mënuñoo ànd ak Ousmane Sonko parce que li tax man la pare wuñu maanaam li ngay wax noonu tubaab bi biñ fi nekkee ci la baaxoon sax jeexaletu tubaab bi sax moom moo gën Sénégal na muy demee jeexaletu tubaab yi xam nga neexu la wax parce que tubaab bi biñ fi nekkee école yi dañ daan am ay jardin ñuy arrosé jardin yi di génn di def ci suñu bopp ñu dañu jàngal ay éducation civique loolu yëpp jeexaletu tubaab yi la mooy temps yi fi président Senghor di nekk rek boobu temps citoyen yi ci la ñu gënoon a maanaam nekk nit ci gàttal léegi ak nite moo fa manqué parce que nit ñi yaruñu leen nit ñi ci boppam ñi ci bare bare bare bare bare bare bare yaruwuñu laa la wax xamuñu sax luy ab yar lu leen neex la ñuy def mooy li ngay expliquer nii rek maître yi bu njëkk boo masoon gis ta maître sax da ngay daw parce que da nga koy respecté ñu ñu ñu am loo xam li moom la ñu moom la ñuy def ci yow ñoom tam ñu am loo xam li moom la ñu comporté woo ñoom maître yu njëkk yi am am civisme am euh, éthique li ñuy wax éthique mooy ab yar rek weesuwu ko ab yar loolu moom la Sénégal dem ba ñàkk ko léegi moo tax réew mi kenn mënu koo defar man kay li ma la wax du du du ji- du li ma la wax du jaas mukk dara baaxu fa dara baaxu fa parce que nit ñi ci boppam ñoo yaruwul nit ñi ci boppam ñoo yaruwul Euh, te loolu yomb naa gis li li ngeen gis muy demee nii rek baaxul mag ak ndaw nag kilifa yi sax a jëkk a gën a jëkk a jëkk a jëkk a mel noo xam ne lii kenn mënu ko wax ñi ñuy wax kilifa ñoo gën a doy war bu dee mooy yàlla gi ci kilifa yi la ëppee léegi bu dee bu dee jëflante yu bon yi kilifa yi la ko xale yi gisee bu dee wax yu bon yi kilifa yi la ko xale yi gisee bu dee njublang yi kilifa yi lañ ko la ko xale yi gisee bu dee parparloo ci kilifa yi la ko xale yi gisee bu njëkk nag mag dafa am loo xam ne li moom lañ doon séntu ci moom di ko gis ci moom mais léegi mag yi ñoo gën a ñoo gën a waye di ñoo gën a tekkee di ñoo gën a yaree di ko xale yi nu ñuy def amuñu repère xale yi amuñu repère parce que mag ñi ci boppam ñoo faux waaw gis nga ba ci diine jeeg euh, euh, comment dirais lu dul diine jeeg civil yeeg militaire yeeg luy diine ak lu dul diine lépp a jaxasoo léegi da ngay gis sax kilifa diine yi di def loo xam li lu lu waye di la gis nga gis nga ko ba tàyyi kilifa diine yi nga xam ne dañ leen ñu ci bari dañ leen a respecté woon ñoo gën a am na ci ñoo xam bu ñu jëfee rek nga xam ne dañoo waye di bu ñu waxee rek nga daw di jëflante yoo xam ni di defante yoo xam ni di waxante loo xam li rek di defante loo xam li xale yi di ko gis di defante loo xam li di waxante loo xam li ñëpp a ngi ci teg seen bët xam nga xam nga moom euh, yu euh, réseaux sociaux yi lépp nëbbu na ba mu des lu ciy génn lu ci génn rek gaa ñi dañ ko waxul rek mais lépp a ngi feeñ soit nga nga bañ koo wax waaye dañ dañ koy adressé nit ñaa ngi koy adressé waaw mu jëm ci diine ji sax nga xam ne diine ji sax moo doon moo doon moo doon garde fu Sénégal diine ji ak kilifa diine yi am na lu ñu leen doon ruse Alaaji Abdou Aziz fu mu masaan wax ñëpp ne tekk di ko déglu sëñ Abdoulaat maa ngi fàttaliku bu masaan wax ñëpp a naan tekk ku doon dox sax da ngay taxaw di ko déglu waaw ñëpp respecté ko ak ñeneen ak ñeneen waaye am na ci léegi ñoo xam ne ya- yaa ma gën a xam ba pare ñu ngi leen di yàq loo xam ne lii di feeñal ay mbóot yoo xam ne yi xale yi dootuñu leen mën a dañ naan lii lu mu doon di wax ci ñoom yu bon yoo xam ne yi bu dul dëgg itam ah te nee nañ wolof kat lu mu lépp lu mu lu mu wax fen la xaw ma lu mu lépp dëgg la xaw ma lu mu wax fen la am na nuñ koy waxee lu ñu wax rek am na lu ci laal nit ñi duñu tëb rek di formé dara bu ko defee xale yi nag di dégg loolu di ko gis respect dootul mën a am wegeel dootul mën a am lu neex waaye def tubaab yi sax ni sénégalais yi mel tubaab yi meluñu ko ni sénégalais yi mel tubaab yi meluñu ko tubaab yi fenk nañu environnement tubaab yi am na loo xam li dinañ ko wax am na loo xam li duñu ko wax tubaab yi am na loo xam li dinañ ko def am na loo xam li xalaatuñ koo def ñun li ñuy def yëpp tubaab yi duñ ko def ba pare ñu bëgg a dàq tubaab yi ba pare ñu bëgg ne tubaab yi tubaab yi buñ demee musiba am li fa baax yëpp tubaab yee ko fi def li fa baax yëpp tubaab yee ko fi def ñun mënuñoo defal suñu bopp dara dañuy tubaab du lekk xaalis bi tubaab yi fa nekkoon du ñu dikk di détourner xaalis bi di lekk mën nañoo am nag yóbbu ci seenum réew d' accord ku nekk affaire u intérêt la àdduna moom affaire u intérêt la rek waaw nañu xool close contrat yi ba pare bañ a dàq tubaab yi yéen bu ngeen dàqee tubaab yi xamu fu ngeen jëm mun leen a demal seen bopp sénégalais mun la demal boppam faaw ab tubaab tayit dañoo am xam nga loolu moo ko waxoon rek te fekk ñun ñu gëm suñu bopp mais ñun dañoo gëmul suñu bopp ñun ñoo fi gën a complexé wax jee fi nekk mais ñun complexe tubaab rek yéen a gën a xam ni complexe tubaab ngeen yor sénégalais yi complexe tubaab ñoo fi gën a complexé ku ciy wax sax munoo wax ñaari baat te wane woon dégg nga tubaab te dégguñu ko sax ñu bari dañuy nax-naxal ay tubaab di wane ni dégg nañu tubaab ku ciy wax rek faaw mu wane ni dégg na ay tubaab ku ciy wax faaw mu wane ni dégg na ay tubaab ku ci tubaabewul sax ñu xeeb la ku ci tubaabewul ñu xeeb la bari nañu ñu gën a respecté ku yor turu tubaab sax ñu respecté la man xam naa li ma la wax dama xam sénégalais je connais le sénégalais dama xam sénégalais waaw ku ci yor turu tubaab laa la wax sax dañ lay respecté man kay li ma la wax du dañ waaw waxumaa nag nga nuru ko boo ko nuroo yow la ñu gën a ragal waxumaa nag tubaab bi ci boppam waxumaa nag tubaab bi ci boppam xam naa ni sëñ tubaab bi mu jàmmaarloog tubaab yi amoon na problème ndax nit ñi ni ñu ragale woon tubaab boobu ku seen ku sol pantalon sax da ngay daw laa la wax sëriñ bi jàkkaarloog ñoom ndaw coow ndaw coow laa ilaha illallah sëñ tubaa kenn xamul lu mu doon moom man foofu laay mujjee samay wax ndax moom moom kenn xamul lu mu doon waaw ñun ni ñu ragale tubaab ak ni ñu complexé ci tubaab mu dal ci sa kaw ñu ne ñu ngi lay exilé jamono boobu ñu jàpp ne jàpp nañ doomi diw ja ñu ngi koy génne ak nii ñu ni ñu ragale ak tubaab ak sénégalais ni mën a commenté ak sénégalais ni mën a waxe am na sax ñu doon ree sëñ Moussa Ka mi ngi koy wax ñu naan bañ ko jàppee am na ñuy tex texi di ree naan tey ñu dee xaw ma kan mooy dundal njaboot gi tey ñu dee ak xiif xoolal ma loolu ñii ñoo bon ñii ñoo bon li ma leen wax du dañ dañoo iñaan dañoo soxor sëñ Touba biñ ko jàppee am na ñu doon tex texi di ree sëñ Moussa Ka indi na ko ci way wi naan ñuy tex texi di ree naan ah dinañ dee nag ana ñan ñooy dundal njaboot gi xoolal leen ma wax ju bon jooju ñii ñoo bon ñii ñoo bon loolu yi nag mi ngi fi ba léegi iñaan googu baaxuñu li daal Ousmane Sonko xoolal léegi laa ko doon wax ñi ngi wër naan milliards yi anamu na ngay lekk milliards yi nangam nangam ñi ngi koy reekat di partagé di partagé kat di partagé te kii mi ngi leen di xeexal di leen ñafeel ba ñu tëj ko ba ñu dóor ko ci lu nekk def nañ ko ci waaye gis nga gis nga ña ngi koy saboté di Lat Joor noonu lañ ko defoon atum wër-wër la ba moom laa bind noonu xaw ma nu ma koy bind sax parce que wax ji moo gën a dal sax yenn saa yi Lat Joor bi ñuy wër-wërul ak tubaab bi da nga gis ñuy ne ah Lat Joor ak tubaab bi ana kan moo doon dàq nag Lat Joor lañ doon dàq wala tubaab bee la xoolal ma di ree Lat Joor te Lat Joor boobu temps geeru géer yàlla doon def di dàq di di di wër tubaab bi tubaab bi di ko wër mais da ngay gis li li Assane Diouf naan doomeraam yi doomeraam yi nga xam ne dañ ñàkk jom naan Lat Joor tubaab bee doon dàq Lat Joor di muy daw ñuy ree naan atum wër-wër loo ba kan moo jiit féete woon kanam kan moo féete woon ginnaaw ñii ñoo bon ñii ñoo bon askan wi ñoo ñoo ñoo ñoo dangereux ñoo bon jaruñoo xeexal jaruñoo xeexal li ma leen wax du dañ jaruñu ko mérité wuñu ko bàyyi leen ak tubaab bi ñuy diiri di dóor rek yéen da ngeen di sonal seen bopp da ngeen man de waxatuma ci dara laa dul wax mérité wuñu libération dara mérité wuñu ko jàpp di dóor rek tubaab yi di diiri di dóor di ñu exploité loolu la ñu mérité woo loolu la ñu wane loolu la ñu mel loolu rek a baax ci ñun loolu rek a baax ci ñun ay waxkat rek lañu duñu ay jëfkat ragal moo tax Macky Sall téye leen fi mu leen téye ragal rek bu doon beneen dañoo bokk ak Maliens yi ñun dañoo bokk ak Maliens yi ñun dañoo bokk ak Burkinabé yi ñoom ay làkkat lañ leen jàppe ñoo ñu gën a dëggu téeméeri junni yoon ñun ay naafeq lañu laa la wax ay naafeq yu bon moo moo moom lañu laa la wax maa ngi maa ngi lay ziar bu baax di jégglu parce que li ma sentir ci xeet wi mënuma ko expliquer te yéen yéen a ma ko gën a xam li may wax nii yéen a ma ko gën a xam laa la wax dañoo xam ba pare ni pat laa la wax te mel ni ñu mel du dañ mukk ñun dañoo Maliens yi dañ ñoo nawla wala Burkinabé nawla wuñ ñu bokkuñu sax ak ñun.
lay lay siyaar naa la bu baax a baax lay siyaar naa la siyaar naa la siyaar naa la jaajëf waay waar sant ñëpp a ngi fi gëj nañu dégg nag gëj nañu dégg de hey gars yi borom xamam yaa ngi ci biir noppeeti de wala suñu laay rek lay lay lay da nga war di génn nag yow tamit ah siyaar nañ la baax a baax a baax macha allah macha allah ci li nga wax non macha allah laay laay ñun ñëpp xam nañ suñ problème grand Thiam wax na ko léegi sax moom kay dañ ko nungoo laal rek mais ñun dañu toog suñ problème rek ñàkk ko wax mais loolu mooy suñu problème loolu mooy suñu problème kenn mënu ko dindi ci réew ma te dafa dafa doy waar boo xoolee nee too ndóol ga mittee ci réew ma daanaka bokk na boo xoolee bu dee téeméer juróom-ñeent fukk loolu la mooy comme li ma wax fii rek ci Allo Dakar rek wax naa ko jotaay yu bëri Sénégal mën na leen nañ nañ li naan li li li li la bëri def ndëpp dañu war a nëppaat suñu réew mi bëri na baat yoom ñu koy vé- véhiculer ci réew mi ñun gone yi nekk nouvelle génération bii bu ndaw yi war nañ ci bàyyi xel te àdduna ñëw na ñun ñëpp ñu ngi xam xam nañ lii nga xam ne mooy ane ndóol war nañ ci bàyyi xel gis nga nee na ñëpp nangu nañ na fi nit ñi rawantee yéen jàppoon ngeen na ñun mag ñi lañ ko la mooy sa baay da nga koy toogal di ko bayal muy toog di lekk jëndi gànnaaram di takki jabar xam nga di noos nga yóbbu ko màkka moom foofu la nit ñi rawante waaye non non non non non non nit ñi fi ñu rawante fii mu ne nii mooy ci bàyyi la ku sa bàyyi sonn ci yow nga raw say moroom foofu la adduna bi nekk ku dem ba xam loolu nag da ngay xam sa bàyyi ku mu am sa jot jël sa temps xam li mu war a def li mu war a def sacrifier sa dundam li mu bëgg ci bakkanam mu def ko ngir sa sa réussite di nga raw waaye yàlla ma yàlla jégal sa bàyyi faalewu la maam dafa jël dundam daal di jiital àddunaam bàyyi la noonu sa waay fii la rawante bi de fi nit ñi njëkkante di rawante ci waajur yi la loolu moom ba may wax nag paa yi seen mag seen àll seen seen dun wër ndax ñoom li ñu xamoon li ñu leen yare woon mooy nit kat dëgg-dëgg mooy barke moom da ngay denc ay ñu bare bari bari bari xam nga bëri ay doom yu bari bari boo dee ñu minaaxal ak ñu naan après comme ñun man dem naa fa ma dëkk ñu naan waajikat borom famille la bu ko defee ñii boo boo fekkee dee nga ñëpp ñëw dajaloo xam nga ñëpp ñëw dajaloo loolooy ba doonoon barke ba ñu dëkk mais fi àdduna bi toll dañu xam ne mbir mi boo yeewoo saa boo yeewu day gën a metti booy laa koy wax ma jur benn ma ne leen fii mu toll ñett ñu ñeent nit ñoo xam ne da nga leen a yar am seen temps am seen jot moo guus moo gën fu camion boo jur kër ba mu fees foog te amul la benn njëriñ doomu jigéen yaa ngi nii gars yi ci dëkk bi mënatu ñoo yor takk nañ leen bàyyi ñaari doom moo doxul takk na ba- defal ko ñaari doom daw ba ko fa alaaji ñëw takk defal ko ñaari doom bàyyi ko ñu toog ñu ne na paa bi ci koñ bi kat moom nga ñaari jabar waaye kat moom mën naa yor ñu dem dénk la ko nga toog sa après sa doom yi màgg di yor la yor ko ah noonu ba kañ ba kañ ba kañ ngay xaar sa doom yi màgg yor la ah su ko defee ñu ne famille baa ngi law kat sa doom jooju toog tuuti moom jabar ñëw taxaw mu takk ñaari jabar yow nga sa rak- rakam yu jigéen ak ñëpp ñëw tëdd ca kër ga muy liggéey lu mu yem lu mu liggéey yemale ko ci ñoom après moom du mën a avancé kenn du kenn du tal kenn léegi nag ku ne da ngay fexe sa biir rak ju jigéen fee sa biir ay jërbaatam ñëpp ñëw daanu sa kër ndax mu amuñu moyen nga yor leen yor ñëpp xam nga li ma daal dal ñëpp ñi ci groupe bi xam nga li may wax ni ah sa rakk jigéen yi ah jàngoon amul moyen kañ leen jox amuñ doole bu ko defee ñëpp ku ne di la ñaan nga liggéey mënoo leen a seetaan mënoo lekk seetaan leen problème yi yokku ñëpp ku ne yi di la jox mënoo avancé doo avancé waaye fekkoon ku ne dafa dañ la teg fa nga war a teg sa rakk jigéen xëy na amam xëy talu la mu ngi ci boppam ke ku ne ngi ci boppam ku ne ngi ci boppam réew mi am jàmm waaye sa bàyyi day jur day jur ah fukki doom ak juróom ñaar baax ci bëgg a yor ñëpp nu ñu tekki di am nu réew mi avancé ah sa bàyyi day yem ñaar fanweeri doom ñaar rek tekki ci bëgg a yor ñëpp ah su ko defal bu mënta yor ñëpp ñu naan non moom kay daa seetaan yi mbokkam bu ko defee ñett jéppi ko ci sa daal di koy jibar mu dee ah wala ñu sànni ko kort mu dee bu ko defee ñëpp delluwaat torox tot billahi wallahi feek nëppaluñ suñu bopp coono gi day gën a yokk bu ko defee kenn moo ci amul diplôme liggéey ci nguur gi amul diplôme xam nga bu ko defee mënta yor ñëpp ñen ñi tëdd ci kër gi ñen ñi bu ko defee kee tas ñëw tëdd fa mënulaa génne ki gën a sa rakam sa yaay naan soo ko génnee ba ma ma ta- tàggoo yu àddulaa la mu ñëw tëdd fa am ñaari doom xale yi di la sàcc xam nga ñu toog di kii diw biiral kii waaye dafa garaaw de laay laay problème yi buñ bëggee mu génn nañu nëppaatal suñu bopp xool ne fi ñu jaar baaxut ñu teggi ko sinuwaay bi ñu demee ba xool danoo bëri ci àdduna bi ñoom nekkuñ fi naan ni suñu borom moo nu fi andi gémmiñ gu xaral yàlla na ci def suuf waxuñ loolu de dañu xool ne ñun dañu bëri ci àdduna bi foofu ñu doog nag xool suñu bopp xool ni ñu war a doxee na du nii ñu daal di wàññi seen xeet jéem a yokk seen vitesse su daw ci àdduna bi jéem a bëgg na dañu war a jéggi àdduna waaye ñun moom ñu ngi jiitu ñu ngi jéem a nañ fexe ba jël pay ci nadd gi ci ndóol geeg ñàkk gi moom la Sénégal la njëkkante di Sénégal koo gis koo gis maanaam jël ci ndand geeg ndóol gi ci moom lay njëkkante te loolu la wax dëgg yàlla nag buñ ci jógut nii lay demee rek dañuy jooy rek ngay jooy may jooy keneen di jooy ba dund bi tukki. ma dolli la ci benn Sénégal fi mu ne nii boo koo fa gis ne borom barke la man fa ma dëkk bokk ñu ne borom alal la ñett ñaari góor moo fa baax ñi si jigéen ñi ci des yëpp ñu ngi leen may borom kër yoo xam boo demoon tey toog si seen borom kër yi sa adduna bi toog dañ naan boo ne bu ñu la nee kii bàyyi am na xaalis da nga ne da ngay tiit barke yàlla billaahi wallaahi bu ñu la nee kii kii papa am na xaalis da ngay tiit mu ngi ci misérable boo xam ne mu ngi ci ñàkk goo xam ne mu ngi ci dëkkin woo xam ne métti woo xam ne tar goo xam ne jàngut ignorant te dañ naan bàyyam multi milliardaire la ndax fee lenn fa am da ngay am alal jël ñi de sànni ci daara xale jigéen nga xaar teg leen tuuti moo du xujje ñëw nga may leen ñu dem yow contrôlé woo ñi war nga teg ci condition yu baax waaye waaye ñun ñun ñun dañuy départ de wallahi dañuy départ buñ bëggee nii mu demee duñ ci def billahi dañuy départ dañuy dañ foofu ñu dëppalaat ñu ah foofu ñu dëppalaat foofu ñu dëppalaat ñu
waaw ma jàpp maa ngi dellu nuyu lay lay Diop Boston di nuyu kii Bakar Endo waaw xaaral ma ñëw dama xaw a jàpp yes one second I'm uh, returning this maa ngi kii Pape Daouda foofu d' accord naa ci yeah I'm returning this What we doing?
okay I'm Are we returning or swapping?
uh, returning xa- xaaral ma ñëw dama xaw a jàpp na
waaw grand Thiam maa ngi lay nuyu di la siyaar Laye Diop maa ngi lay siyaar booy Boston naka euh, sa dëkkandoo Omar Gueye ak Cisco Oji Cisco moom it namm nañ ko quoi gëj nañ leen dégg lool maa ngi lay siyaar Laye naa ne dégloogu ma la da nga wàccee rek euh, audio après audio grand Thiam bi wàcc mooy moom laa doon déglu nii Babacar Endo foog naa man yaakaar naa waxtaanu tey bi moom bon si li fi liñ fi li li grand Thiam di di wax nii ak euh, presque li Babacar Endo di wax presque benn la quoi mais man euh, grand Thiam gis nga loolu yëpp li ko waral grand Thiam mooy inconscience bi nga xam ne moom parce que réew mi dañoo jël médiocrité nga xam ne moom lañ jël jiital ko ñi nga xam ne ñoom ñoom daanaka seen xam-xam bariwul ñoom la ñu forcé askan bi léegi nag ñoo ñoo nekk ci kanamu scène bi mais c'est normal yow dëkk boo xam ne moom investir wuñ ci éducation bi dañuy investir ci ay yëfu yëfu dof ay làmb ak ay affaire yooyu yëpp grand ci am si yow askan boobu noonu tey kan moo leen di kan moo leen di defar bu fekkee ñi leen di defar ñoom ñoo leen di dévier ci la nga xam ne moom mooy li li war yaa ngi wax ci sëriñ si sëriñ si bon gis nga ni mu demee autrefois yaa ngi naan maam Abdou Aziz Dabakh buy wax ñëppay ne sell léppay ne tekk parce que lan moo ko waraloon kooku dafa jiitaloon la nga xam ne moom mooy diine la jëloon jiital ko la nga xam ne ragal yàlla mu mu nangu jola mu jaral ko lu ne mais tey fii nii tey xoolal li fi nekk tey grand Thiam xoolal li fi nekk tey ñi fi nekk tey da ngay dégg kilifa taxaw naan waaw euh, bu ma waxee ñu saaga ma parce que dañuy naan ay malet xoolal fi ñuy yóbbu discours yi rek da ngay xool xalaat ni nga xool loolu euh, daf dafay nekk loo xam ne kooku noonu moom bu baax a baax xam na ne moom la muy wax askan bi du ko may dara parce que moom xam na ne bu baax a baax moom moom moom ci boppam xam na ne la muy wax askan bi du gisu ci boppam mais daf koy wax ngir intérêt boppam ak intérêt waa këram ak intérêt la nga xam ne ñoom ñoo leen topp. ñu ci mel ni comme ñenn ñi ñuy jox kàddu ay Moustapha Diakhaté ñuy wax wax yoo xam ne di boddi ay xeet di naan diw bi fii fii ak cinquante ans ku fi nar a jur li kii ay wax yoo xam ne grand Thiam mais c'est normal que xale yi dañuy juddu. investissement ci éducation bi amu fi léegi ñooñu xale yooyu dañuy juddu ñan la ñuy kii ñan la ñuy kii roy mooy les lutteurs wa mbër yi ñoom la ñuy dem roy néew ma mbër baaxul sax mais ñoom la ñuy dem roy intellectuels yi kan moo leen di roy ñi nga xam ne pas intellectuel sax maa ñi nga xam ne boog ñoom ñoo jàng ñi nga xam ne tey ñoom ñoom ñoom lañ ne ñoom ñoo fighting ba réussir seen alal tey kenn mënul taxaw jiñ leen jiñ leen di douane seen alal dañ ko sàcc loolu moom moo bëriwul Sénégal Sénégal ñu bëri ñi fa am alal ñëpp seen alal presque ñëpp laay wax du ma la ñëpp mais ñu bëri seen alal niñ ko amee amin bi setul moo tax askan bi dañuy xool loolu amin bu amin alal bu gaaw grand Thiam le problème est très profond mais nag yéen ñi ngeen xam ne da ngeen xam li mbir mi demee bu leen di noppi dee leen di wax parce que wax bi moom mooy tax nit ñi sensibiliser benn benn boobu moom mooy fekk si ay ay mbooloo mais bu ku nekk mere kiy jàpp ñaamburam fii kiy jàpp ñaamburam loolu du solution affaire bi mbir la boo xam ne il faut que ñëpp jàpp ci affronter ko pour le bien commun mais nag li nga wax moom grand ci ab du loolu nag du ñëpp ko pare du ñëpp a ko pare parce que am na ñoo xam ne dañ ciy jariñoo ci alalu askan bi la ñuy jariñoo ba mu saf sap ñooñu tey dafa leen jaral lu ne mooy ay classe Moustapha Diakhaté yi ak ay classe Ahmed Khalifa Niass yi ñooñu mbir mi da leen jaral lu ne léegi nag mu ngi noonu ñooñu ñoo ñooy wax ñooñu ñoom ñoo yor kàddu askan bi ñooñu ñoo yor kàddu askan bi.
asalaamaaleykum afro maa leen nuyu baax di leen ziar fekk si bunt bi booy Mosco non soxna Sawda sax patriote Sonko bi laa fekk si bunt bi tey booy Mosco nag tey moom soxna Sawda def na la ko ko wax yàlla nekk si bunt bi di leen nuyu baax di leen ziar Pape Daouda Sène ex desk sport ex Pastef nuyu naa la di la ziar Grand Malick nuyu naa la ziar la Babacar Indo di la nuyu di la ziar Laay Diop nuyu la bu baax di la ziar waaw Maodo Mandela Maodo borom ñaari tur yu mag yi Maodo borom jooy yi nuyu naa la ziar naa la gis naa nga lonk ma de xaaral ma ñëw Baba ko comment dire Aline Menga Karamalaawa Coow jaraaf New York ak jaraaf Ndooy nuyu naa leen Mbaye Gueye provocateur dëkk si provoca provocatrice dëkk bu dëkk buy buy xëy di tooñ di tooñ Moscou mais di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar Issa di leen nuyu di leen ziar Mamadou Bathily El Patrioto de Sonko dégg naa la fi di leen nuyu di leen ziar Issa yaa jël nuyu bi jox ko ñëpp quoi yaa ma ñëw déglu audio yëpp rek.
salaamaaleykum nuyu naa leen ziar leen Baye Diop Pape Daouda Mbaye borom Xelaan Mbaye tonton Ameth moo ngi fi de moo ngi fi moo ngi Jolofa di waaj a pré campagne man la ñuy jëlee ziar di nuyu Laye Sarr tonton Baba tonton Sadibou Jaraaf Karamal Laaw Ilaas Niass Jibi Bari Imam Mbaye Mbaye nuyu naa la di la bëgg lu bari di nuyu Pape Daouda Pape Massamba Hot Cisco Fore Mbos Fore maa ngi leen di bëgg di leen ziar Babs Babs maa ngi lay nuyu ana Serigne Modou Samb bu leen déggee rek seen parti bi ñoo am yitte wala bokk ñu am lu leen soxal bu dul loolu da leen dégg ñoom moom laisse tomber nuyu naa leen ziar leen nuyu imam Malick Malick gën a dégg Papis Papis fu dugg fan yi maa ngi leen di ziar di nuyu ñoom Lamine Bara Gaye maa ngi leen di bégg waa tonton Bamba man de damay ñëw ci li Pape Daouda wax tonton Bamba maa ngi lay bégg di la ziar lu bëree bëri li Pape Daouda wax nag tonton lu wér la de ndax réew mi affaire xeet kañ la fa am dëgg-dëgg ci nguuru Macky Sall boo xoolee Macky Sall moo fi indi loolu kon dëgg yàlla ñëpp si teg seen gët boo demee Sénégal sax daanaka place yu baax yëpp mën nañ ne suma mbokk yi la ko jox. ba pare ci biti tam noonu la dem noonu la mel ah ci biti foo mën ci dem dafa dugal affaire xeet ñoom itam nëbbatuwuñ ko nee naa la Macky Sall ñett ka topp ñenn ñi ci mbiru tarixa lañ ko teg ñenn ñi ay am affaire yu dënk te bëgg lu yomb. ñenn ñi affaire xeet ñooñu ñoo ko topp bu yàggul dara gis nga sortie bi mu mujj a def la la doon wax soit disant ay xawma lani Casamance naka la ko waxeeti saa su nekk gis na gis nga ah Casamance doonte ne def nañ fa lu bari ba nga xam ne rébellion bi doon am wàññi ko na waaye tamit ci wàllu beddi konte lu waay gàtt gis-gis xam ne foofu ñoom ñu ngi koy wane ñu ngi lay wane ne. donte la ne am na indi na luñ fa bees ndax lu indi na fa lu bari ndax dem beeg dikk bi mu jot na yomb moo xam ci jaww ji la moo xam tam ci yoonu suuf bi la waaye ba tey ci wàllu xeet ku ne xam ne ni ñi mu àndal ak ñoom ñoo ngi def loo xam ne affaire bi beddi kontel ba ci moom ndax ne da ko bandum moom wax na ko campagne na ko def na lu bëree bëri loo xamante ne si ne tey jii nii activiste yi di wax dañu dem ba seen xol jeex bu ñu waxee ba wax lu ñu war wax rek daf fekk ne seen xol moo jeex wala boog dem nañ ba sëf te nit nag bu meree parfois day tontu rek mais doo xam sax lu muy tontu.
asalaamaaleykum Maodo Mandela ma ñëwaat si yow Babacar Indo ak déglu naa sa kaset yi am na solo lool lool lool lool lool lool li nga si waxee ay doon mais nag affaire mirage moom beneen affaire la ah. yeah wasaay. xaaral ma.
asalaamaaleykum wa rahmatullah alors Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp Maodo Mandela Mbuub maa ngi lay siyaar maam Maodo dégloo guma la nag hey yal mbir mu mag baa ngi noonu de koro maag nam nu mbiyu pap daaw de seen seen caal yi ñu ngi lay siyaar de di siyaare tonto Thiam maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di siyaare Abdoulaye Diop njóobeen njóobeen bu mag bi Bakar Endu Bakar Bakar Bakar Puting Endo maa ngi lay siyaar bu baax sama séeréer Euh, yal mbir gëj naa laa dégg de laay saar gracier yow de sir naa la fi jëm maa ngi lay siyaar bu baax a baax Euh, yaa jaa njaay ñu ngi lay siyaar njaay jàll siyaare ñëpp rek Fatima Diop euh, jaa sooda ñu ngi lay siyaar karamallahu wajhahu sama goro dan sama doom baay yow ndax mi ngi si jàmm rek tonton doy maa ngi lay siyaar ngi siyaar ñëpp siyaare ñëpp rek papis awa Diop maa ngi lay siyaar Essa Jara lu ko bàccali Mamadou bàccali siyaare naa ñëpp Ah, Ibrahima Bojang ñu ngi lay siyaar welcome to the panel Bari ñu ngi lay siyaar yaa Ayda Thiam waaye ku bëgg lim mën ngaa bañ a juum mais da nga dul mën a motal jël sama nuyoo rek bàyyi ko ci mbay gay borom Feyland moo koy partagé Babacar Endo Babacar yow gëm naa ni yow bu beneen diine doon amaat yow da nga da nga bokk ci ñu koy kere yow. seet teet teet teet teet Babacar yaa neex Ablaye Laye Diop nag di la jéem a dëggalal xam naa ci lenn de bu dee ci diine ji la ñuy dund de ku ci deeta sa alal mira suñu ko. xëy na da nga ne say mbag njaboot yi nga bàyyi dana jaxasoo duñ nekk ci confort waaye yow fa nga tëdd doo confort de moom com doo doo tàlli de mirage nit organisé wu ko mirage bu dee ci diine la moom alxuraan na ko def yàllaa ko yàllaa ko organisé boppam du sëriñ du ab yonente yàlla moo teg mirage ak lu njaboot ga bare bare lu mu jaxasoo jaxasoo dafa am ay yoon yu ñu koy def lu alal ji bare bare lu mu tasaaroo tasaaroo loolu njaboot gi lëj lëj dañuy jël taa miraas ko teg ko ci yoon mbirum miraas miraas moom benn nit préparé wu ko organisé wu ko ci diine islam kum neex na nga bañ koo def waaye ay att la ci atte yi da ngay nangu jël ko jaarale ko fañ ko wax xam-xam bu compliqué la nag ñun nag sunu réew yi ñu jógee yàlla mi ñuy tim xam na ni. ña cay miraas bareetul dañuy far di séddale alal ji benn yoon mais du miraas da ngay dem ci kër kilifa yii ñiy wax kilifa diine am na ci ñoo xamee ne sax bu ñuy gaañoo kenn du ko miraas ay ati ati at waaw te miraas dafa am yoon ba tax na léeg-léeg bu ñu gis rek bi ñuy gis ci kaw na ñu yaakaar ne noonu la mbir ma demee man na ñaan naa yàlla bu ma génnee àdduna moom ak lu mu fi mën a bàyyi nañ ko miraas waaw waaw waaye bloqué affaire yi ba papier yi bu ko famille bi jot parce que buggoo boo dee ñu miraas ko sa gannaaw ñii di dem fee ñii di dem fële ñooñu yoroo seen dund benn doomi aadama yorul dund beneen ni doomi aadama ci gannaawam da ngay dund sa dund dee jot nga dee bàyyi leen seen gannaaw mais bàyyi sa gannaaw mu leer lu jar daw ba deele sa àdduna bàyyi sa gannaaw miraas suñu ko ndax ay dossier yoo xam ne yaa ko bloqué woon kooku musiba rawu ko ci àdduna alal ji da nga koy liggéey boo dee moomatoo ci tus lañ la ca sàngee saraxal la ca loolu képp nga ci fa nga ca yem la ca des na nga bàyyi gannaaw ñoo ko moom bu ñu ko mérasee xayrun bu ñu ko mérasulit yow moom yaa ko def yaa jaxase bu la yaa créé nag ba kenn du la méras yow moom yaa yenu say problème yi bopp ña nga bàyyi sa gannaaw seen yoo nekku ci danañ ci noos def ci lu leen neex te yow problème ba ci yow lay fekk si miraas du mbirum caaxaan bu dee da ngaa bàyyi ak njaboot nag ñu xam ni affaire yëpp tegu na ci yoon leer na waaye ñoom ñoo lànk ñoo bañ bañ ko miraas ña des sa gannaaw yore res- yore responsable bi nekk kilifa gi wuutu la sa gannaaw ñooñu ñoom ñooy am problème parce que xam nañ ko lépp leer na seen gannaaw waaye ñoo lànk ñoo bañ taaw baag wala wala wala wala ñooñu ñoo xool ñoom seen i mbir mais yow du sa coobare. tegoon nga sa lépp sa yoon leeralal nga leen ko lii laa am lii laa am bis boo fi génnee na ngeen ma miraas mooy yoon waaye fay ba dese 500 wala 1000 francs pour bañ ñu jot kayit gi pour boo dee ñu bañ a jaay kër ga allahu akbar loolu fu ñu ko teg xam nga nag mbir mi moom lenn la ku nangu da ngay nangu ku bañ nga bañ rek kenn ku bañ a yu islam forcé wul kenn ci diine ji dafa teg ay yoonam ku bëgg jël ku bëggul nga bàyyi takk ñaar ñett ak ñeent kooku ay condition la ci islam teg islam forcé wul kenn takkal ñaari jabar ñett jabar ñeenti jabar dafa am ay sart yu mu teg ku bëgg takkal ñaar boo ko mënee ñett ñeent boo ko mënee soo ko mënul yow teggi nañ la ko au contraire sax dañ la koy aaye parce que mënoo ko gis nga tun diine ji moom bu ñu waxee nag ñu ne ma jibi ñëwati na waaye ñun fekkee muccul euh, sama Babacar Inde mi moom moom dafa dëgg dëgg dëgg beneen saaru nit la quoi moom moom man comprendre naa ko léegi ay waxam yéen ñëpp bu leen ci topp Babacar da leen di sànq laa lay wax nii Babacar da leen di sànq rek kii ci di diine boppam la nekk waaw diine boppam moom sa nekku ci diine dara moom ci boppam la nekk Babacar ci boppam kese la nekk Babacar Babacar xaji kenn xaji Babacar problème faaxeere ah baax na bàyyi li nga nekkee Babacar bàyyi sa li nga nekkee Babacar di jaxase bopp nit ñi yow Babacar xamul yow ne nee nga nee nga espionnage ngay def te Babacar boo espionné espionné tamit bul espionné bul espionné sunu sunu diine ji Babacar yow tamit ah di di di yol di jéem a yolomal nga mu nit ñi di jaxas seen xel yi yow li ngay wax tegoo ko fenn Babacar. bàyyi si yi ngay wax gëmuloo gëmuloo rek mais yaa ngi tudd Ababacar ni jullit nga wax pare te yow lu daal mooy loolu quoi. seet tet tet tet baax na ñu yendu jàmm yow. billahi man jaaxal nga ma quoi.
waaw pardon Maodo Maodo dégg naa li nga wax li nga ma doon interpellé si Sid Lamine Maodo da ngay dem nga déglu bu baax a baax a baax a baax ànd ak teey bu ko dégloo émotion Sid Lamine la ma sa wax yëpp. lu am la lu nit mën a laal la mi ngi si YouTube bi lu nit mën a seede la loolu kay xamut affaire bi nekkutoon between Macky Sall ak Sidy Lamine affaire bi mi ngi nekk rek si si Sidy Lamine lañ doon wax si affaire ay franc-maçon ak yu demee noonu daaw kër indo ok après man ma dugg si wax si la ma sa wax te la ma sa wax yëpp mi ngi si YouTube bi mi ngi si YouTube bi waaw kay ndox naan leen la si drapage mooy bi mu wane ne maanaam junji wane ne dañ koo rey ak xam naa ne boo ñoom lu fi nekk Sénégal moom ku dee rek gouvernement bi dañoo war a rey foofu nag laa ko leeralalee li Ahmed Khalifa wax te loolu tamit mi ngi si YouTube bi Maodo loolu ñun fi la ñuy fekk live anyway man yooyu yëpp li ma la wax nii live Sidy Lamine bu dee mbokk rek la du mbiram politique ak yooyu noonu maa la ko gën a bëgg yaakaar naa ko doo ma ko bëgg parce que maa ngi moom ñaari wàll yëpp lañ bokk. ñaari wàll yëpp côté baay bi ak côté yaay bi si télé si kii laay waxee micro ok donc loolu man aw ma si problème mbaa xam nga xaw ma jullit xam na ko tuddee yooyu yëpp bon aw ma si problème mais li ñuy wax mooy bu fekkee moom dafa engagé woon politique jël part jël part mais lam fa wax mi ngi si YouTube bi loolu laa nettali li politique si la ñuy wax si la mi dafa jëloon part politiquement politiquement. dégg nga de Macky toog un mois mu commencé di ko attaqué mais loolu mi ngi si YouTube bi nettali fi passeport am beeg yooyu loolu mi ngi si YouTube ba tey moom moo ko waxal boppam nëbbu ko sax moom lenn rek la nëbbu ma wax ko te gannaaw gi loolu feeñ na Sénégalais yëg nañ ko mooy 400 millions yi nga xam ne moom ko Abdoulaye Wade joxoon. loolu ba tey fee la mi ngi si YouTube bi da ngay dem nga seetlu ko bala ngaa mer fii di wax ay nangam ak yu demee noonu Maodo du noonu toujours ni waxee da ngay seet na est ce que li mu wax sax am na d' abord boobaa nga xam ne kii kay sosalu nangam parce que daf koo bañ wala yu demee noonu loolu si demee te loolu sama mag la sama mag la Ahmed mi nga xamante ne magam la moom ak suma benn mag ki nga xam ne daanaka bon man naa xam ne moom a yar daal xam nga xarit lañ ba ni kooku génn àddina Sidy Lamine rakki kooku noonu nga xam ne ba tey sama mag la Cheikh Tidiane mu koy wax pour ñu dégg ko Cheikh Tidiane moom ak Sidy Lamine ñoo bokk benn lal di màggandoor di màggandoor ba ni kooku demee Xaahira Égypte bàyyi yóbbu ko si lemen dem fekk ko encore moom tam ñu bokkaat fa encore nekk fa jàng ba pare ba kooku pare bokk si di pare wutoon ñib si édition yu njëkk yi nga xam ne Walfadjri moom la daan bind nga xam ne boobu Walfadjri ay 15 jours la daan la daan wàcc xam na par mois dañ ko daan bind euh, kii bi quoi magasin bi boobu doogu télé doogu rajo kooku moo si daan bind boo mënee am édition yi ma lay wax nii toujours da nga gis photo bu mel ne photo carte d'identité yu njëkk yu ndaw yi noonu mooy nekk sa koñ ba Cheikh Tidiane Niass moo daan bind lépp jamono boobu noonu alors loolu boobu ñoom ñaar ñëpp moo ñoo moo moom Sidi ku nekk benn jabar nga am samp kër bees samu sax kër gu dëgër dañ doon luyee jamono boobu noonu Sidi maa la gën a xam waa ji sëñ bi Sidi kay bu ñëwaan ñun ñoo ko daan ataayal bu ñëwaan si kër kooku noonu Cheikh Tidiane moom noonu ñun ñoo ko daan ataayal boobu ñu ngi fi nekk foofu ndaw nekkee étudiant Sidi moom sunu waay loolu jërul wax moom demal ma ñëw moom moom nijaayam ñoom Mouhamed Sayet ak dégg nga ñoom ñooy waaru daal bëgguma dugg si côté boobu noonu mais nag dafa engagé wu politiquement wax si politique def si politique mais loolu noonu dañ koy génnee teg ko rek loolu dafa dara Maodo da comprendre da comprendre nit ñi fi ñuy waxee quoi nuyu naa la da nga bàyyi jooy ok soxna Mati dara mu gëj a dégg xam naa ne moom sa jooy mun naa am daf koo kii ba mu jig moom mu kii moom
Ablaye Diop Ablaye maa ngi leen di nuyu di leen ziar Laye Diop di nuyu Jibi Laye Diop de yow ak Babacar Endo euh, sànq maa ngi leen di dégg Laye Diop euh, Babacar Endo l'islam dafa organisé lii ngay wax ni ci lu jëm ci wàllu ndona dafa fekk na rek yéen ña ngeen gis mbir dañ ko tegu ci yoon mais l'islam euh, bu fekkee ne rek organisé la rek l'islam mooy ndamba wan te lu jëm ci wàllu ndona bu jaaree yoon mooy li war ndax euh, ku ne mën na ci jël exemple am na
ah Pape Daouda Pape Daouda Sène maa ngi lay siyaar bu baax Pape Daouda gis nga affaire xeet yi moom ah, alhamdulilahi rabbil alamin man de tiituma ci tiit tiituma ci loolu man daal ah, na nit ñi yeewu rek génération bu bees bi moom ay yooyu dañu cee doxut yu bari dégaase nañ ko tegee ko fële ay ñii wolof la ñii lële la ñii lay la yooyu moom gars yi bare doxatuñu ci loolu man dama cee kontaan lool waaw séeréer yaa ngi takk ci njaago yi di takk ci pël yi di takk ci saraxule yi ñuy takk fee ñuy takk fële affaire bi mel na tull ak male loolu sant yàlla la Sénégal moom loolu dafa yëngatu ku dof nag yaa jàpp ne mën nga manipuler ci xeet wi nga bokk pour dóor ko ci yeneen bi mais loolu du dem dellu du dem man des fois ma de- nekk ci YouTube bi jàpp sama mbokki ta tuggulóor yi yàlla xam ne ci laay gën a kontaanee da nga ci gis ñoo xamee ni sa waay ànd ñoo gars yi li ñu fi ñuy fi gars yi xalaat ak fa ñuy xalaat dafa wutee dunduñu sax li gars yi dund. yee ci TikTok beeg ci YouTube bi dama leen di topp keroog dama ci ja- am ci YouTube TikTok bi samay mbokk tuggulóor maa ngi leen di topp ci TikTok bi. ma arrêté la ci lu ay ay audio yu bari parce que sama cousin bi nekk fii moom mi jéem a doxal affaire yooyu noonu. mu ko déglu mu ne waaw ñii ma ne ko amul ñii dara yow da ngay nelaw te yeewooguloo te bëggoo ku la yee maanaam sax nelawul day nelaw nelawlu xam nga kii nelaw nelawlu neexut a yee kii nelaw moom da nga koy mën a ñëw yee mais kuy nelaw nelawlu kenn mënu koo yee mais ku yaakaar ne mën nga jaxase Sénégal ci affaire xeet walaay xamul loolu xew gone yi weesu nañ foofu léegi man daal loolu li ma ci kontaanee kéemaanu suñu borom la maa ci bég yàlla na yàlla xeeb dolli di leen siyaar bu baax a baax xéewal
am na kër yoo xam ne bu ñu leen jaayul dëgg la nag soo demee ci kaw gi ah këru famille yi kenn du leen jaay ndax am na ci ñoo xam ne danañ ko bàyyi ngir ëllëg seen i doom yi jigéen yi nga xam ne sëy nañ sax yàlla mën na weddi te bu ñu weddee fan la ñuy dellu siwaat seen kër waajur la ñuy dellu siwaat waaye tamit ah, ah, tey jii bari na loo gis ci ay matériel wala ci alal bu ñu ko jaayul ma jox la exemple rek ci kaw gi matériel yi nga xam ne moom la ñuy bayee bu ñu ko séddalewul jaay ko ku ci ne am te la mu ci war a am ah ah, bët dana sebi ñu war a dem tool est ce que kon machine bi nga xam ne moom la ñu doon demee ci ay tool matériel yi nga xam ne moom moom moom la mag ñuy yoroon kan moo koy jël ndax dañu bàyyi taw bi nga xam ne moom mooy dem ci tool yi ci bi- eh, eh, jamono ji nga xam ne ndox ndox baa ngi wàcc su paree jox togo bu paree jox keneen dama ne l'islam dafa organisé papa kan yow ak kii par déggal baara kii kii parfois moom dañuy ñëw rek ci diine wax ci lu leen neex laay jóob ak kii
bon Babacar Indo Babacar Babacar Babacar li nga wax am na solo am na solo lool amati na solo sax laa war a wax macha allah li ma si jaaxal daal mooy ba nga nekkee Sénégal moom da nga ne muur kenn déggu la Babacar ay waay waay waay waay Babacar ñëw rek commencé nag Babacar dëgg ndigal rek lay Macky Sall la ilaha illallah ñëw dañu layal naan sa sa téléphone dafa yàqoog dafa dugg fii gën na faa mais anyway li nga am na solo dama koy dëggal vraiment gis nga mirage yi heureusement sa yow da nga ne mirage yi Sénégal heureusement gis nga l'islam bu fokkante ne moom la ñuy pratiquer à la lettre comme ni ngeen koy waxee di ko doon coow di jub mais Babacar ñun dañoo doon war daal dañuy copier dara mais duñ ko copier na mu war a nekkee xam nga ilimaan yooyu ngay wax noonu benn affaire rek la ñu war a def accompagner ñi xamul te bëgg def miraas dëgg la am na benn pourcentage boo xam ne war nañ ko see am dégg nga mais loolu du sens bi sens bi rek mooy ñoom ñu accompagner leen jaroon na sax ñàkk jël affaire boobu noonu léegi nag dañ siy dem ba nga xamante ne ñoom ñooñu di mirage mën na ñàkk nag saa ab imam ah mais mirage kat yi rek dañuy dem ba dañuy jël part léegi-léegi par parloo daf si am dégg nga maanaam daal nu ñu koy waxatee xaw ma guerre daal su ma ko mënee tuddee noonu daf si am man am na yu ma si xam man am na yu ma si xam mirage yoo xam ne dañ ñoo koy mirage ñoo koy jël yàq ko complètement famille bi am problème meroo si noonoo si dégg nga mais li ma bëgg a wax mooy l'islam man may na la yow bala ngaa dem nga leeral sa bopp nga mirage sa bopp parce que boo seetloo mirage yi am coow ñu si gën a bëri dégg nga de bon am am na ay mirage kon yoo xam ne amul coow ñu si gën a bëri ñooñu dañuy leeral seen bopp dañuy bind li ñu am yëpp dégg nga li nga xam ne moom lañ am àq pour maye ko ñu maye ko li si des ñoom ñu def nii nangam nangam bu ko defee man xam naa koo xamante ne bim gaañoo mirage am ñaar sax laay tudd ñu siiw oustaz Braham Diop ak sëriñ Aliou Cissé seen mirage bi kenn yëgu ko parce que oustaz wax naa ak doomam yi taaw bi moo ñëw après bi oustaz génnaa dina taaw bi toog ñoom ñoom ñu toog ñu gis ni ñu ko leeralee woon ñu def mu jeex kenn yëgu ko ñoo toog rek gis ne ba tuxu joxtee ñii tuxu nañ ba kii jotee ñee ñee kii nañ mu affaire bi coow amu si dégg nga kii itam sëriñ Aliou Cissé papa imam Hassan Cissé bi mu génnee àddina ki nga xam ne moo daan miraas Medina dégg nga de moom da doon parce que ku ni ko baax la ko sell mooy moo doon papaay directeur kii waaye ki yore consommation yi anyway daal Omar Ndaw Momar Ndaw je ne sais pas mais kooku moo daan miraas ak yooyu mais moom yëgu yëgul miraas mii sax ñoom imam sax ñoo tëju rek daal di miraas affaire bi mu jeex parce que ñoom itam ay borom xam-xam lañ kenn yëgu ko c'est vrai que nit da ngay leeral sa bopp bala ngaa dem boo demee ba gis ne lii nii moo xew mooy xew ko si teg bët bala ngaa génn àddina leeralal sa bopp dégg nga sampal sa doom yi ku nekk nga samp leen fa nga leen fa nga leen war a samp mu jeex tàkk man de noonu laa si gis man waaw parce que Sénégal dafa xew nii moom mirage mu tubaab mi sax moo gën mu mu mu mu islam bi léegi si ni ñu koy defee si Sénégal moo tax ma ngi insisté si la ñu insisté noonu donc daal damay d'accord yow nag c'est cent pour cent si si affaire mirage ni ñu siy luubalee ni ñuy loree famille yi quoi vraiment métti na métti na métti na man xam naa si yoo xam ne boo ko waxoon fii sax yaakaar naa ne lu baax quoi wallaahi waaw te ay kilifa ñoo si dugg rek la jax jaxase affaire bi. ok am na solo am na yoo xam ne nag dans si yow yi nga yi nga interpellé Macky Sall ak xaw ma la ok. Babacar Indou Babacar Babacar. dégg naa ngay interpellé suñu réew yeeg yooyu noonu bon dëgg la am na si réew yoo xam ne nag Babacar vraiment vraiment vraiment dañ leen def loolu lu nekk ji def ko mu ngi indi sa test janax ba ni ko misaalee maa ngi rey ba mais Babacar Sénégal vraiment am nañ mérite si yu bëri quoi seulement que buñ génnee politique bi am na yu bëri ñoo si tane yenn réew yi quoi daal jox benn exemple am na benn année daana seen quatre-vingt yi Italie defe naa ak su ma fàttewut Italie ak Allemagne wala daal mais Italie moom jàpp naa ko moom dafa am ay déchets nucléaires yoo xam ne dañ ko doon jox pays africain yi Babacar Sénégal dañoo refusé jamono boobu jamono Abdou Diouf la dégg nga de Nigéria dañoo jël seen homme d'affaires dañoo jël Guinée gii nii dañoo jël dégg nga man je pense que Côte d'Ivoire aussi ay déchets nucléaires xam ne amuñ fi ñu ko tuur ñu jox ko pays africain yi pour ñu tuur ko seen géej yeeg seen dex wala wala ñu suur ko war a fa nu mën a doon loolu xew na fi Babacar Sénégal dañoo taxaw taxawaay bu rafet jamono boobu noonu beneen bi mooy nañ jël rek bi gën a récent bi xam ne moom la ñuy dund góor jigéen affaire góor jigéen Babacar réew yu bëri dégg nga dañ ko accepté seen population bi naam accepté wuñ ko mais seen président yi nanguñ se prononcé ba mooy réew yi ma xam bokk Ouganda Sénégal nga xam ne seen président yi dañ see feeñ carrément ne kenn du ko fa kii je pense que ak Rwanda imagine loolu te loolu lobby ju góor jigéen yi ñoo ñëw di leen ko imposé mu ngi la preuve mooy fi Obama demee Sénégal ak bi fi premier ministre Canada bi demee loolu jaar na fi Babacar boobu ñaar ñetteel bi ONU gii nii Israël nga xam ne dañoo am doole di ko imposé fu nekk Sénégal bi muy voté dafa voté ànd ak Palestine ba dañ ko see merewoon année yi avant Covid bi boo ko seetloo amoon problème relation Sénégal Israël amoon na amoon amoon taxoon suuf dégg nga bi israélien di menacé jamono di dox dox dox ba guerre Gaza bii nii demal nga xool tableau bi dugaloon nañ ko Sénégal gis nga réew yi nga xam ne ñoo farle Israël Kenya le premier si liste bi Ghana gii nii Ghana nga xamante ne da ngay foog ne ay bañkat lañ ndax réewu kii la nu ñu ko waxatee waaye président bu njëkk boobu Nkrumah ak Rawlings dañoo signé Togo Sénégal nekku si am na réew yu si nekk ay Nigéria yooyu non Nigéria bon je ne sais pas Nigéria leeru mais gëm naa nekkuñ si quoi dégg nga imagine loolu Sénégal ñi am ay taxawaay yoo xamante ne vraiment taxawaay yu patriote lay doon mais problème mooy ne politique politique sain bi nga xam ne moo bëri coow lu bëri ba bi seen ñu naan nangam dugg na fii nangam France loolu moo tax du ñuy seetlu loolu mais Macky Sall ñaar yi ma la limal nii taxawaay yi dafa mënu mënu def sax lu mooy ak loolu parce que daf ko doon si ay Abdou Diouf ak yooyu yëpp loolu lañ def loolu Sénégal moo mel noonu you know Sénégal bu ñuy décider dañuy indépendant nit ñooy coow rek si gën a bëri anyway loolu laa bëggoon leeral quoi
mooy comme li ma wax fii rek ci Allo Dakar rek wax naa ko jotaay yu bëri Sénégal mën na leen nañ nañ li naan li li li li la bëy di def ndëpp dañu war a nëppaat suñu réew mi bëri na baat yoom ñu koy vé- véhiculer ci réew mi ñun gone yi nekk nouvelle génération bii bu ndaw yi war nañ ci bàyyi xel te àdduna ñëw na ñun ñëpp ñu ngi xam xam nañ lii nga xam ne mooy ane ndóol war nañ ci bàyyi xel gis nga nee na ñëpp nangu nañ na fi nit ñi rawantee yéen jàppoon ngeen ne ñun mag ñi lañ ko a mooy sa baay da nga koy toogal di ko bayal muy toog di lekk jëndi gënaaram di takki jabar xam nga di noos nga yóbbu ko màkkam moom foofu la nit ñi rawante waaye non non non non non non nit ñi fi ñu rawante fii mu ne nii mooy ci bàyyi la ku sa bàyyi sonn ci yow nga raw say moroom foofu la àdduna bi nekk ku dem ba xam loolu nag da ngay xam sa bàyyi ku mu am sa jot jël sa temps xam li mu war a def li mu war a def sacrifier sa dundam li mu bëgg ci bakkanam mu def ko ngir sa sa réussite di nga raw waaye yàlla ma yàlla jégal sa bàyyi faalewu la maam dafa jël dundam daal di jiital àdduna am bàyyi la noonu sa waay fii la rawante bi de fi nit ñi njëkkante di rawante ci waajur yi la loolu moom ba may wax nag paa yi seen mag seen àll seen seen dun wër ndax ñoom li ñu xamoon li ñu leen yare woon mooy nit kat dëgg-dëgg mooy barke moom da ngay denc ay ñu baree bari bari bari xam nga bëri ay doom yu bari bari boo dee ñu minaal ak ñu naan après comme ñun man dem naa fa ma dëkk ñu naan waa ji kat borom famille la bu ko defee ñii boo boo fekkee dee nga ñëpp ñëw dajaloo xam nga ñëpp ñëw dajaloo loolooy ba doonoon barke ba ñu dëkk mais fi àdduna bi toll dañu xam ne mbir mi boo yeewoo saa boo yeewu day gën a metti booy laa koy wax ma jur benn ma ne leen fii mu toll ñett ñu ñeent nit ñoo xam ne da nga leen a yar am seen temps am seen jot moo guus moo gën fu camion boo jur kër ba mu fees foog te amul la benn njëriñ doomu jigéen yaa ngi nii gars yi ci dëkk bi mënatu ñoo yor takk nañ leen bàyyi ñaari doom moo duxulee takk na defal ko ñaari doom daw ba ko fa alaaji ñëw takk defal ko ñaari doom bàyyi ko ñu toog ñu ne na paa bi ci koñ bi kat moom nga ñaari jabar waaye kat moom mën naa yor ñu dem dénk la ko nga toog sa après sa doom yi màgg di yor la yor ko ah noonu ba kañ ba kañ ba kañ ngay xaar sa doom yi màgg yor la ah su ko defee ñu ne famille baa ngi lawkat sa doom jooju toog tuuti moom jabar ñëw taxaw mu takk ñaari jabar yow nga sa rak rakam yu jigéen ak ñëpp ñëw tëdd ca kër ga muy liggéey lu mu yem lu mu liggéey yemale ko ci ñoom après moom du mën a avancé kenn du kenn du tal kenn léegi nag ku ne da ngay fexe sa biir rak ju jigéen fee sa biir ay jërbaatam ñëpp ñëw daanu sa kër ndax mu amuñu moyen nga yor leen yor ñëpp xam nga li ma daal dal ñëpp ñi ci groupe bi xam nga li may wax ni ah sa rak jigéen yi ah jàngoon amul moyen kañ leen jox amuñ doole bu ko defee ñëpp ku ne di la ñaan nga liggéey mënoo leen a seetaan mënoo lekk seetaan leen problème yi jokku ñëpp ku ne yi di la jox mënoo avancé doo avancé waaye fekkoon ku ne dafa dañ la teg fa nga war a teg sa rakk jigéen xëy na amam xëy tallu la mu ngi ci boppam ke ku ne ñu ngi ci boppam ku ne ngi ci boppam réew mi am jàmm waaye sa bàyyi day jur day jur ah fukki doom ak juróom ñaar baax ci bëgg a yor ñëpp nu ñu tekki di am nu réew mi avancé ah sa bàyyi day yem ñaar fanweeri doom ñaar rek tekki ci bëgg a yor ñëpp ah su ko deful mënta yor ñëpp ñu naan non moom kay daa seetaani mbokkam bu ko defee ñett jéppi ko ci sa daal di koy jibar mu dee ah wala ñu sànni ko kort mu dee bu ko defee ñëpp delluwaat torok tot billahi wallahi feek nëppaluñ suñu bopp coono gi day gën a yokk bu ko defee kenn moo ci amul diplôme liggéey ci nguur gi amul diplôme xam nga bu ko defee mënta yor ñëpp ñen ñi tëdd ci kër gi ñen ñi bu ko defee kee tas ñëw tëdd fa mënulaa génne ki gën a sa rakam sa yaay naan soo ko génnee ba ma ma ta- tàggoo yu at laa lay mu ñëw tëdd fa am ñaari doom xale yi di la sàcc xam nga ñu toog di kii diw biiral kii waaye dafa garaaw de laay laay problème yi buñ bëggee mu génn nañu nëppaatal suñu bopp xool na fi ñu jaar baaxut ñu teggi ko sinon waaye bi ñu demee ba xool danoo bëri ci àddina bi ñoom nekkuñ fi naan ni suñu borom moo nu fi andi gémmiñ ko xaral yàlla na ci def suuf waxuñ loolu de dañu xool ne ñun dañoo bëri ci àddina bi foofu ñu doog nag xool suñu bopp xool ni ñu war a doxee na du nii ñu daal di wàññi seen xeet jéem a yokk seen vitesse su daw ci àddina bi jéem a bëgg na dañu war a jéggi àddina waaye ñun moom ñu ngi jiitu ñu ngi jéem a nañ fexe ba jël pay ci nadd gi ci ndóol gi ak ñàkk gi moom la Sénégal di njëkkante di Sénégal koo gis koo gis maanaam jël ci ndadd geeg ndóol gi ci moom lay njëkkante te loolu la wax dëgg yàlla nag buñ ci jógut nii lay demee rek dañuy jooy rek ngay jooy may jooy keneen di jooy ba dund bi tukki.
ah Babacar Yendo Babacar yow yaa dàq ci monde bi man de seen waxtaan maa ngi koy déglu ci ba Pape Daouda laa yam déglu ko ma ñoom Maodo Mandela ak yeneen yi ci tegu waaye ala kulli xaalin li ma ci xam te xam ko ci daal te gëm ko mooy mbir mi afa am fa xamee ni mbirum suwaa la am na boo xamee ne bu dee ci diine la interdire wu ñu la ko boo ko mënee nga def yow mi ko nag kontaan ni defuloo ko kooku mën nga ni defuloo ko mais bul ko bonal loolu mbirum suwaa la ki koy def it mënuloo ko mënuloo taxaw rek ne attaqué ne ko di kii li muy def baaxul baaxul loolu tooñ la am na koo xamee li muy def ci diine la ko teg ci ay at la ko teg bala ngaa weddi dara nag mun lu aju ci mbirum diine da ngay xam ndax lan la ci diine wax ba pare. nga soog a mën a weddi mais di weddi loo xamee ne da ngaa toog sa xalaati bopp rek sa gis-gisi bopp daal ne li jaaduwul waruti demee nii mais yow kon lan nga fay teg diine doo àndal dara te mënoo faa indi dara boo nee lii doxul lii la ci diine wax waaye man gis naa ne arrangé wu ma arrangé wu ñu kon nañ ko ci war a génnee loolu tamit ci tooñ la jëm nit ku nekk da ngaa tànn li la gënal ñii tànn nañ lii ñii tànn nañ la le diine ji nee na lii bu la neexee nga ne le diine ji wax yëpp. damay takk ba mu dëgër sànni ci mbuus kooku yow la mais bul ni nañ ko tànnet sere ko fële parce que moo ñu tardé looloo tamit ci tooñ lay bokk waxtaan balaa neex boo àndee kay nit dëgg-dëgg ci groupe ñuy wax ci mbirum ay mbirum loo xamee ne ay atte diine da cay atte nga bëgg koo suufeel am na ñoo xamee ne duñ ko nangu te boo waxee ñu yàlla moom dafa xaw a sévère dafa mais am na ci loo xamee ni tooñ la tooñ tooñ pire la nañ ko moytandiku li ñu fi naqarlu yëpp dafa ñu dab rek waaye li am na loo xamee ne ña ña jotoon bu ñu la nettalee démb ak bërki démb nga xam mag ñi lañ doon dundee xëy na jamono day sensé mais am na ci ñoo xamee ne nañ doon dundee dëgg-dëgg sonal lu ñu woon kenn loru ñu woon kenn te si yéen yëpp ñu ngi ko teg ci siraatal mustaqim yam ca la ñu am di ko dundee ñeew ñu kenn sonal luñ kenn xataluñu kenn mais ñun ñoo dem ba yenu àdduna dugal suñu bopp yoo dund yoo xamee ne attanunu ko loolu moo ñu sonal mais nag diine tooñul kenn et puis cosaan tamit ñaare tooñul kenn dafa ñun suñ cosaanu mag ñi njëkk ñi sax moo gën a normal li ñuy dund ñoo gënoon a dëggu ñoo gënoon a jub ñoo gënoon a maandu ñoo gënoon a doylu ñoo gënoon a yaru lépp dafa yàqu léegi lépp a yàqu léegi lépp a yàqu te li ko yàq lépp système bu bees bi rek jël ay aada jàmbur njàngum jàmbur làkki jàmbur jël ay programme jàmbur ñëw teg ko ci suñu bopp moo ñu sonal ñun li ñu sonal ñoo ko teg suñu bopp topp ci tubaab yi rek seen programme jël bàyyi suñu programme xeeb suñu bopp nit nag boo xeebee sa bopp li olof naan ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ay boromam toog ca waaw doo àgg ci kaw te doo mën a dellu fi nga jóge woon loolu moo ñu sonal waaye ku nekk nag jàppal ci li nga gëm jàppal ci li nga gëm man de loolu laay loolu laa gëm man mais topp classe bi Babacar Inde gi nga xamee ni kenn xamul lu ñu gëm kenn xamul lu ñu bëgg kenn xamul fu ñu jëm dañ lay wax ne la yoon wi ko tegu baaxul te duñ la teg ci yoon boo waxee ne lii baaxul da nga naan defal nii waaye lii baaxul lii baaxul lii baaxul rek ci ngay dëkk te doo indi lu baax mukk waaye loolu doxul waaye yow tamit juuf daa la booleeg fayen fayen ñuy defal la affaire yow.
donc da ngay da ngay tàyyi sax ci ay waxi Sénégal da ngay ciy tàyyi sax mais day faaw ñu def loo xam ne lii rek faaw nga wax ci rek laa la wax faaw ñu comporté woo noo xam ne lii sax comportement bu vulgaire boo xam ne bii ah xalaat yu vulgaire yoo xam ni un niveau rétrograde un niveau intellectuel rétrograde rétrograde bu amul benn tolluwaay niveau yi ci boppam ignorance bi dafa bari foofu daal am réew mun la soppeeku lu dul nit ñi dañoo am benn tolluwaay moo tax blague yi nekk fii sax libéré seen bopp moo tax ñu libéré seen bopp parce que dañu am tolluwaay bi ñuy xeex ak tubaab yi fii ñoom ñëpp ñu mànkoo ko déggoo ko am ubbeeku xam li xew mais ñun xamuñu li xew de bu guddee ñu ni yàlla nelaw na naka ngay xase Macky Sall naan maccudo la te kat activiste yi nga xam ne ñooy wax ci ci kii kat ñu di leen seetaan ñu ne en direct man kenn laa ci seetaanul kenn laa ci seetaanul parce que amuñu benn intellectuel level ñoom dañoo amul benn intellectuel level amuñu benn ubbeeku ja man duma ci seet déglu kenn laa ci dul déglu ay baaroo la lañ nit doo ko xeexale noonu Ousmane Sonko li muy xeex xam-xam moo koy xeex xam-xam bu wér ak tolluwaay moo koy xeex comme ñoom Kémi Seba ak ñoom Nathalie Yamb man ñooñu laay déglu mais man ñii ay diw ak diw ak diw yoo xam ni xamuñu li xew dof yoo xam ni bu ñu waxee rek nga xam ni ñii ay dof lañu naka ngay waxee naka ngay waxee xaw ma kaay foofu la xaw ma amul benn niveau benn niveau amu ko ay xasteeki yu kenn xamul yi mu doon doono xeex bi am na feneen foo xam fi da ngay convaincre nit ñi ci xam-xam ci xam-xam ak dal xam-xam bu wér nga wax li ngay wax ci xam-xam ñu mën laa déglu mais amuñu benn xam-xam amuñu benn cohérence di xaste Macky Sall nga naan mu ne màccudo la xoolal doomeeraam ji màccudo la jaam la yooyu war nañ ko wax ak esclavage moo tax man leen amuñu xam-xam dof lañu esclavage ni mu ravagé Afrique tubaab yi nit ñu xeebe def ñu ay esclave yow nga dikk naan président bi esclave la màccudoo la waa màccudoo yi ci des nag ah mbokki màccudoo yi ci des nag dañ dul ay citoyen sénégalais moom laa bind noonu nga xam ne am na ci waa APR ah am na ci waa PASTEF am na ci ñu ànd ak Déthié Fall am na ci ñu ànd ak comment dirais-je keneen ak keneen di ay sénégalais ah bokk ci dëkk bi am ci ay tijaan am ci ay murit di ay sénégalais pour pour tout résumé ah ngay xas président bi naan ko màccudoo la màccudoo mais c'est pas possible mun leen a bàyyi yëfi dof yooyu ah mun leen a bàyyi yëfi dof yooyu yooyu kenn waru ko déglu yooyu kenn waru ko déglu diw màccudoo la diw màccudoo lan mooy màccudoo esclave c'est pas vrai même bu fekkente ne esclave la sax dañ leen a ëppoon doole rek ah am na màccudoo yoo xam ne ay wàll yu la ñu sax ah ay dëkk boo xam bi boo fa demee gis ñoo xam ni ba léegi ay esclave lañ leen jàppee ki ay affaire u jaam ak yu ma xamul moo tax Sénégal fenn la dul dem Sénégal gii ngeen bëgg a defar fenn la dul dem parce que mentalité yi baaxul tubaab yi nañuy dóor rek tubaab yi rek a ñu mën a yor tubaab yi rek man ci dara bu dul woon ak tubaab yi sax ñu torox laa la wax parce que ñun mënuñoo demal suñu bopp ay dof dofa ci ëpp laa la wax mënuñoo demal suñu bopp ay wax la de ay wax la fenn lañ dul dem moo tax dof yi naan tubaab yi nañ dem France dégage ñëpp a complexe ci làkku français ay mu munoo mucc ci làkku tubaab yi gëm tubaab yi ñëpp a fi gëm tubaab ngeen naan France dégage da ngeen a mën a doxal Sénégal da ngeen a mën a doxal Sénégal mënul dem c'est pas possible nañu bàyyi nii rek bu kenn laal na français yi continuer di dóor parce que ñun loolu la ñu mérité ku ñuy toroxal ak ku ñuy dóor ak ku ñuy traîner dans la boue loolu la ñu mérité amuñu jukko yi amuñu xel mi amuñu way gi amuñu tolluwaay bi amuñu ngor gi amuñu jom ji jom ji ñëpp la ñu mën a jënd fii ak quatre-vingt pour cent man la Sénégalais bu nekk am na njëg laa la wax bu ñu teg xaalis nga nga nga nga nga nga ñu lay siiñ di wàcc seen tubay ñu ci bari dañuy wàcc seen tubay laa la wax di la siiñ laa la wax yàq fayda boo gisee xool ko ci amuñu benn éducation boo ko xoolee ci booy yi nga xam ne fët bëtt nañ frontière bi ñu ci bari dugg États-Unis sax américain yaa ngi leen di commencer jéppi parce que comportement yi ñu jëlee Sénégal moom la ñu dugal fii ci États-Unis d'Amérique ah maa ngi nuyu kii bam si njóogu maa ngi mi ngi approuvé samay samay wax ndeysaan ku baax la ko te gore jàmbaar waaw góor dama caa bëgg nga dëggu man man ku dëgguwul defuma ak yow nen man ku dëgguwul defuma ak yow nen comme mën a doon bëgguma la sax xam bëgguma la sax gis nit da ngay dëggu sincère mais ñi ay reeki ñàkk fayda ci fekk ñi ngi lay toroxal ñi ngi lay rey ah sama waay ngay masla ak dëgg ak dëgg kenn du ko masla ak dëgg kenn du ko masla ak dëgg kenn du ko masla te ñun sénégalais kat mane nañ lu nekk nu nekk ñun sénégalais mane nañu ko laala nu nekk mane nañ la ko mane nañ ko tubaab bi da lay dóor toroxal la nga di ko siiñ dem di reeg moom te du la xool sax da lay jëppi toppal fële la lay wax moo tax teguñu ñu doomu aadama ay golo lañ ñu teg ay golo lañu tubaab yi teg laa la wax nawlawuñu parce que nun sommes pas sincères li nekk ci ñun du dëgg laa la wax xeet lañu boo xam bi kenn musul gis xeet bu mel ni comme Sénégal yi man musuma koo gis musuma koo gis soxor ñàkk jom ah ki lay ki lay duma moom ngay def xarit ki lay rey moom ngay reewandool dem di añandoog moom dem di ànd ak moom ciy jàng ñàkk fayda man xaw ma loolu xaw ma loolu xaw ma loolu ñàkk fayda kenn mosu koo gis c'est dégoûtant je suis dégoûté par ce par ce pays là ñëpp a kenn mosu koo gis kenn rek mosu koo gis kenn mosu koo gis ni ñu mel Ousmane Sonko munu ci dara dara la ci Ousmane Sonko mënul giñ naa ci yàlla ne bu ñëwoon ñu ñu xas ko ci joolaa bi lañ koy jëkk a wax am nañu ko tàmbali woon sax affaire waaso lañ koy jëkk a xas come on man foofu lañ koy jëkk a xaar xas ko fa laa la wax ni ko joolaa bi xam nañ ne mënul woon a yor dëkk bi foofu la ñuy jëkk a wax de xas ko la ñuy def ci waaso comme ni ñu xase Macky Sall naan ko màccu doo la ñàkk fayda seeni wax rafetul seeni xalaat baaxul seeni jukko baaxul ah bu fi tubaab bi jógee ñu torox ngeen naan lan ñun dañoo mën a demal suñu bopp yoruñu capacité boobu sëñ Tuubaa mi sax dañ ko bañ ba nga xam ne bañ moom bañoon moo tax mu génn ñu génne ko ndeysaan te lépp kat dañ koo jaxase rek mu ñëw Mauritanie ñu ñu jaxase ko mu dem Gabon ñu jaxase ay sénégalais di ko métital di waaye yow lu ne def lañ ko ko laa la wax mu ñibb si Mauritanie ñu di ko métital mu ñibb si njaareem ñu di ko espionné di ko bertital ba léegi am nañu ko bañ laa la wax te deful dara góor googu ñàkk fayda ñii dañuy doomu aadama
damaa ñëw yem ci jibi jibi jibi jibi te nga maa bàyyi yow jibi xoolal déglu ma seen audio yëpp nag déglu ma seen audio yëpp de maa ngi déglu maa ngi ñëw déglu mais dama yar ci jibi moog maa rey jibi yaa ngi may bëgg a rey jibi jibi ma naa ma di ah jibi rek ma bëgg a jibi gis-gisu Bakar Endo xanaa déggoo ko ci Allo Dakar daa am gis-gis rek ci àdduna bi am na gis-gis kay wax dëgg yàlla nga woon ànd nga sama gis-gis waaye teguma xam-xam de sama gis-gis nii laa ko gisee bu ma ko waxee nag gars yi ne am loolu moom amul ci diine waaye en tout cas daal sama gis-gis rek laa wax waxuma ne nii la diine war a doxee de bàyyi ci xel balaa gars yi di ma kalaame am naa ñaari sama sama grand bi ne ma ah ah moom xam waru gars yi daa bokk ci gars yi baax yi comme kalaame ak ak jibi la ñaare bu may wax mu daal di jóg toog xulli ma bët yi na ma yow naa ñëw sa gémmiñ gi rek waaye yow tal la en tout cas jibi balaa sama grand bi ñëw sama gémmiñ gi attaqué attaqué wu ma leen de gis-gis dama am gis-gis rek ne nii laa gisee yi lii nii laa ko gisee loolu rek laa wax de jibi am nga maa rey taxal dégloo gu ma lépp sax fi mu ne mënu maa ñëw ci wax ji fi mu ne nii waaye mënu ma yow rek laay dugal nii audio dama rey bëgg a dee déglu la ah jibi yow ngay font yow rey nga ma man vraiment bëgg a dee daal ma ñëw déglu yéeg naa fi audio yu bari gis naa ñoom bari bari gis naa seen jaam sax may laal seen jaam siyaar naa la gars yu bari gis naa leen waaye maa ngi déglu